mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam boobu di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw loolu ñu dellu siwaat ak yéen tey di juróom-ñeenti fan ci weeru ramadaan dëppook junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci waxtaan yi nga xam ne daayira muxaddamatul xidma moo koy amal diiru bu weeru koor gi ci waxtu wi fii ci jumaa ju mag ji ñu ci jël ay bind ak ay tomb yu fasantikoo yoo xam ne dina jariñ nit ñi ci seen dund gi ñu nekk waaye itam dina leen jariñ ca dund gee ñu jëm muy dund àllaaxira tey jii nag ñu jëm tem boo xam ne ñi ngi koy wax alxuriyatu fi lislaami mafhumuha wa xuduuduha muy liberté ci lislaam lan mooy aw dégginam ak bu amee fu mu yam fan la yam alxuriya fi lislaam mafhumuha wa xuduuduha muy liberté ci lislaam aw dégginam ak bu yàlla dogalee mu am fu mu yam fan la tàmbulee ak fan la yam ku ne xam na ne thème boobu thème bu am solo la boo xam ne eh, jamono laaj na ko ndax jamono ju nekk da ngay dégg nit ñi moo xam ci tele yi la wala ci rajo yi wala sax nit ñi nga xam ne da waxtaan ak ñoom rekk ñuy jëfandikoo baat boobu di liberté te it muy baat buñ yàgg a jëfandikoo mbooleem munazamat alamiya yi muy organisation yi nga xam ne organisation mondiale la dañuy jëfandikoo baat boobu lu bare bari nit yi kese yi itam dañ koy jëfandikoo noonu ma ko waxee léegi dañ koy jëfandikoo ci rajo yi ak ci télé yi kon war na itam ñu xam lan mooy jëmmi baat bi ak nan lañ ko war a jëfandikoo ak fu mu tàmbulee ak fan la yam ak yan mooy dugg ci jëmmi baatub liberté ki ñu ko war a defal nag di alxaaji Fàllu Buso Xasan eh, di ko xam ne ku ñu miin la ci jataay bi ku yàgg itam mm, jataay yu mel nii fii ci dëkk bi ak ci bitti dëkk bi ñuy ñu koy ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala mu dëgëral ko te euh, yokk xam-xamam ba lim fas yéene liggéeyal Serigne Touba lépp mu defe ko ni mu ko bëggee ci xam-xam kon xam naa du ñu guddal ci tomb boobu dañuy daal jox sëriñ bi rek mu dugg ci biir waxtaan wi kon sëriñ bi bisimilah. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi ak ñi ñuy topp ñoo ngi yëkkat suñu kàddu muy kàddu nuyu ak cant ak ndokkeel mboolem jullit ci weeru koor yi di la sant Sëriñ Asan ci laytaay bi nga defal waxtaan wi jël nuyoo bi teg ko sa loxo nga jottali ñu ko mboolem ñi nga xam ne nii ñoom ngeen seqal liggéey bi di nuyu al imaam sëriñ Afia di teg ci moom suñu ziar bi tegoon ci al xalifatul am li mu di Cheikh Mouhamadul Muntaqa ni nga ko waxee nag tey ñu war waxtaan ci xorriya te buñ ko waxee ci muy baat bi di arab kon liberté wala sañ-sañ def mooy lan ak ndax am na fu mu yem ak i melokaanam mu bokk ci baat yi nga xam ne nii nag léeg-léeg waxtaanee ko du yomb ndax dafa am baat yoo xam ne dañu am lu leen jëmmal nga xam day am lu mu jàkkaarloo ci bit boo ma ne li nga wax lu mu doon dama naan la moo nekk nii léeg-léeg nag leen day jafe ci baat bu mel ne liberté ak yu mel noonu moo tax ñi gëstu ci wàllu làkk ak xelum doomu aadama dañuy wax ne baat yi ñuy jëfandikoo wala làkk bi ñuy làkk dafay am cërub kilifteef ci nit ñi koy wax donte nit ñi ñooy indi baat yi waaye baat yi dawul bëtikuwaat amaat kilifteef ci ñoom moo tax baat bu nekk day woo melokaan bu dëppoo moom moo tax saa yoo indi baat bu bees indi nga melokaan bu bees moo tax boo doon xool jikko yu nit ak seeni melokaan li cëpp mu ngi dellu ci ay baat baat yooyu ne da ci am yoo xam ne nii am na lu mu ci ci bitti am ci baat yoo xam ne léeg-léegi sax boo doon gëstu moom jàkkaarloo ci bit doo gis wala boo doon sàkku ñu leeral la ko dina jafe lool te am na lépp nag dañuy wéy di ko jokkalante suñu biir ndax dañ koo miin a waxante suñu biir ba di ko jokkalante suñu biir te nag léeg dañu wax ne miineel dàqoon tuuti la nga miin bañ a nekk lu wér mën ngaa miin biir lool di ko jokkal suñu biir te fekk na nekkul lu wér ñu ne baat yi mu ngi mel ne kayitu xaalis yi ñuy jëfandikoo jëflante kayitu xaalis boo yoroon kayitu ñaari junni am na ci yoo yu baax la ak yu baaxul waaye boo amoon kayitu ñaari junni yu baaxul mën nañu ko mën nañu sax ci di ko jox ko suñu biir di ko jëflante ba keroog ñuy dem ba xam ne kayitu ñaari junni di kayitu bu baax bu ko defee ñu teg ko foofee noonu tam baat itam léeg-léeg day am lu mel noonu dañ koy jox suñu biir waaye bu ñëwee ba xam ne amul maanaa ñu jël ko teg fële am na ci baat yi kon tey boo doon xool àddina bi mu toll nii ak ni danga gis ne boo doon xool baat yi nga xam ne nii tey mooy nekk ci kanam nit ñi di leen wommat di leen giide ay baat yu limu na yoo xam mën nga ko wàññi ci say baaram baatu liberté ci la bokk baatu démocratie ci la bokk baatu droit de l'homme ci la bokk baatu extrémisme mooy ëppal ci diine ci la bokk ak yeneen baat yu mel na ñoom nga xam ne ni ab lim la boo xoolan tey nit ñi leen yëngal ak leen dalal lépp du génn baat yu mel noonu foo dégg wax ji ci baat yooyu lay wëndeelu te moo ne baat yooyu yi ci ëpp leeral ko ci nit ñi day jafe lool ndax dafa amul lu muy jàkkaar lool ci bit duñ mën a yëg tey su ma néewoon nee na garab garabu niimaa ci misaal wala sées toogukaay boo ma laajee garab damay ñëw ne la garabu niimaa mu ngi nii teg sama loxo nga gis wala lii ma ab sées ma teg sama loxo nga gis boobaa werante door ci am boo dee bu ñu dëppoo ci baat ba rek dañaa defal baat bi lay tekki loolu nag dafa mënta am ci baat yu mel ne xurriya mooy liberté te mënoo jël sa loxo teg ko ci ne baatu liberté moom lii mooy liberté kon xëy na baat la boo xam ne nii dañ koy gis muy feeñ ci ay mbir ci ay melokaan waaye moom ci boppam dana jafe nga ne moom mi ngi nii teg ci sa loxo loolu nag bu amee baat yu mel noonu lu jëpp ñoo ñuy indil ay jafe-jafe yu baree bari ci àddina bi te sax nag boo xool ba ca biir du doon du doon du doon jafe-jafe ndax suñ demoon ba leeral ko moom leer ci bopp nit ñi rek lënt lënt yi bari yi ci amoon ak yi ci bare bari yi ci lëmasoon dañ ko daal di mën a dindi mu daal di leer nañ léeg nag it jafe-jafe yi ñuy nit ci ni ñuy toggalee baat yi mën naa toggale ay baat yi baree bari jox la ko da nga fay nekk naan tey di andi ñoo problème boo xam bu réeree boo ko xam fu ma koy leerale te fekk na boo ko tosan baat par baat amul maanaam tey su ma ne woon de am na fas yoo xam benn tànk la am am benn bët ñaari waxtu ci lay jóg day dogale xale di leen jàpp togg na ko noonu da ngaa nii loolu dañ ciy xalaat di ci xalaat ñu rëy ci fekk na ay baat la ñu toggal yoo xam ne nii soo ko dindi woon ban baat baat du am benn maanaam ndax soo ko déparé woon ci fas am tànk rek da nga daal xam ne loolu amut ndax fas moom liñ ci xam ñeenti tànk la am kon da nga daal xam ne kon loolu dañ koo toggal jox la ko noonu nga defe ne am na maanaa nekk ca di ca sonn fekk na sax amul benn maanaam ñu ne ba tey mbir mi ni ñu mel ne rek euh, ña ci bi maanaam mel ne ni ñuy wax suppame suppame boo ko gisee ay xollit la xollit yi tegaloo yi tegaloo yi tegaloo ba mu ne ñu mënoo ñu rëy lool waaye fi ne boo ko gisee boo xamul da ngay jàpp ne daa am lu ni ca biir am lu ko wër waaye fi ne boo ko doon xolli par par xolli par xolli da ngay dem ba xolli ba ca mujj dara du fa nekk ay xollit kese la yuñ boole loolu kon jafe-jafe yu baree bari ñu ngi koy wax te ci làkk ci lay jógee ndax ni ñuy dëppale baat yi toggale ko ba mu jox la loo xam ne mel ne dafa am maanaa nga nekk ci di ci sonn di fekk ne maanaam ma dox ko am solo lool baatub liirati nag la léegi dafay dugg ci foofu ndax moom it comme baat la boo xam mënoo koo làmbu dëkk mënoo koo xool gis ko xëy na ci ay melokaan lañ koy xam moo dox léeg-léegi ne mooy lii mu jafe am na loxo nga mën nga koo tudde keneen gis ne loola dugg li liberté waaye leneen la kii tudd ko nii kii tudd ko nii ko mu am firi yu baree bari kon baat la boo xam moom leeral ko moom it léeg-léeg dana jafe ñàkk dañ koy leer nag mooy war léeg ñu tuumaal ci nit day yomb tuumaal nit ne ko da xeex liberté nit ak ak xam ak dafa yomb lool loolu lañ ciy tuumaale lislaam diine lislaam ñi nga xam ne nii ay noonu lislaam lañ wala doo bëgg yàqal lislaam dañuy tuumaal lislaam ne lislaam day xañ nit liberté da koy xañ sañ-sañam waaye tam lislaam day jëflanteeg nit ki ci forcé ko ak not ko rawat na ci wàllu pas-pas du ko ci may lenn kon foofu ñàkk xam baatub liberté xëy ni muy tekk wala ñàkk kom ñàkk a leer mooy war a léeg ñu di tuumaal lislaam mu des nag ndax baat bi ci boppam nii ñu ko tënk nii ne liberté ak bu yem ak dayoom ak fu mu yem ndax bu ñuy waxtaanee liberté làkk wi bi dégg nañu yëg ndax mën na noo wax ne liberté am na fu mu yem ndax buñ ko xasee wutal am yamukaay ndax dana ko tuddati kon sañ-sañ bu xasee am fu mu yam dana ko tuddati kon wutal ko dayo tam dafay dàqonteeg dégg gi ni am ci baat bi léeg-léegi moo tax ñoom ñaar tam li ma waxoon léegi kon ñàkk leer gi mooy wëral léeg-léegi ñu bëgg ko wutal fu mu te boo ko xasee wutal fu mu yam ci dégg ni ko jox dootu tudd liberté ndax sañ-sañ bu xasee bu ñu ko xasee wutal fu dootu nekk ab sañ-sañ kon saa yu wutal fu mu yam moom ci boppam dafay daal di ñàkk. moo tax kon dañ dëppoo ci ne kenn mënta dàq ne nit dafa am liberté loolu dana jafe lool lool lool su fekkante ne gëm nañu liberté yëg yëg la bu ne ci biir kon naa la moo xam nit daf koy dund yëg ko ci biiram te biir doomu aadama nag dugg ca biir ba di ko fi wutal fu muy yem fu muy tàmbalee léeg-léeg dana jafe moo tax xorriya kon wala boog liberté wala boog sañ-sañu def bu ñu koy wutalee fu mu yem léeg-léeg danay dàqonteeg maanaam ni ñu koy jox te it muy yëg-yëgu biir boo xam nit ki moo ko moomal boppam ci biir moo tax gëstukat yi ci wàllu xalaat dañ naan àdduna bi li ciy dox dañ koy séddale ñaari xaaj am na loo xam moo ne ci am loo xam ci biir doomu aadama li ci bitti nag moom doomu aadama mënu ci dara mooy lu ñu ci sabab sabab yi sabab yi moo ne ci bitti loolu doomu aadama mënu ci dara waaye nag li ci biir te mooy volonté bi ak yëg-yëgu biiram bi nit ku nekk yaa ko moom yow dong yaa ji mën a soppandiku keneen mënu ca soppandiku ba di la juutal fu muy tàmbalee ak fu mu yem kon sabab yi ci biti man na ma jàpp ne moom suñu borom moo ko bind noonu doomu aadama mënu ci dara ngelaw leeg tàngoor weeg jant beeg ak ci biti yëpp nga xam ni daf koy jëfandikoo loolu moom yàlla ma ko bind noonu xëy na nit mënu ci dara waaye nag yàlla bu ñu bindee ba noppi ku nekk defal na la sa yi ci adduna biir te mooy sa volonté bi nga defal sa biir loola moom yaa ko moom kenn amu ci sañ-sañ kenn mënu caa dugal dara yaa koy jëfandikoo nam la neex kon nag sa biir googu moo lay jox responsabilité te responsabilité boobu nag mooy waayu liberté ci doomu aadama ci misaal tey ñu ne la jaasi wala boog paaka ci sabab yi ci bitti la bokk waaye nag ni koy jëfandikoo moom ci biir doomu aadama bi lay dellu moo tax mën naa jëfan jël paaka wala jaasi dem rey ci doomu aadama yow nga jël paaka wala jaasi dem yett ci loo xam day jariñ doomu aadama kon yéene ji ñu jëf jëfandiku ñun ñaar yéene ma am moo ñu wuutale yéene jooju nag maa ko moom kenn mënu cee dugal sa loxo moo tax yéene jooju nag ci lañuy ñuy àttee jëfi nit te bi ñuy wax liberté doomu aadama dëgg-dëgg ñu ngi koy waxee ci yéene jooju mu am ci biiram foofu nag kenn mënu faa dugal loxo loolu lu mu gàtt gàtt ci wàllu tëggin wi ci wàllu xalaat ak wàllu baat bi kon dañu gis ne liberté moom mënees ko wutal ab dayo ci biir te bu ñëwee ci dégg mi doon doon dana gën leer mën naam kon lislaam it bu ñuy wax ci bu wax ci liberté du ko tegal ab limite ndax lislaam xam na ni yàlla moo ñu doomu aadama xëy na la muy def nag mën na ko nos nos ko ak wutal ko ab limite nag léeg-léeg dañuy wuute ci misaal tey ci diine lislaam mën na laa wax na la kat xalaat ci jëmmi yàlla ji amoon la njariñ mën na am sax daf lay lor kon nag bala ngay jël seen kàttanu xel gépp di ko xalaat ci loo xam ne danga ci jëlee ngirte wala doo jëlee résultat te mën na laa lor ñu ne la kon teeñ laa wax yoon wi gën a gaaw kon jëlal xalaat boobu nga def ko ci loo xam ne nii mën nga caa soppaxandiku tam amal la njariñ ci àdduna bi nga def ko ci kon foofu limité wuñ la waaye dañ laa organiser maanaam wutoon la yemukaay waaye dañ laa nos dañ laa xoolal fa nga xam ne nii boo fa jëfandikoo sa xalaat boobee fa lay gën a baaxee ci yow ñu jox la ko daan lay bàyyi ak bopp nag bu la neexee nga def ko bu la neexee nga ñàkk koo def boo ko ñàkkee def gis lim lay lor boo ko defee gis lim lay jariñ amul tenn ci nit ñi koo xam ne nii bis wut nga toog yow doomu xalaat ci jëmm yàlla yi ku nekk ñun dalay dal ku nekk ñun gis nañu nga toog di xalaat ci melokaanu suñu borom di ko jëneer ni mu war a mel ñëpp leen la ku nekk ñun gis nañu nga toog xalaat ci mbir yoo xam ne ni ñu fàdd la yoo xam ne xayb nga di ci xalaat su fekkee ne kon ni nga wutal lii rek dañ ko wutal sañ-sañ ni ko wutal ab lim ne ko fii nga am kon mën naa am foofa doo fa mën a xalaat léegi nag mu des kon nag nit ki ci boppam nag man naa wax ne man fii laa yemale sama liberté samay sañ fii laa ko yemale boobaa nag loolu moo tax ñuy wax liberté ci boppam nag ndax yow yaa jël sa sañ-sañu bopp sa sañ-sañu bopp nga sukkandiku ne wutal naa samay sañ-sañ ab yemukaay boobaa kenn waxu ne mu wutal ko yemukaay waaye yaa ne man man la neex mu wutal ko ne fii lay yem kon dafay tegtal ne kon da jëfandikoo sa liberté ci limité say liberté loolu yaa ko defar sa bopp waaye kenn wutalu ko ay limite loolu defe naa ne buñ ko ci déggee dana am solo ci déggin kon ci boppam mbirum biir la njëkk nag muy feeñ ci melokaanu nit ki ci kaw kon mbirum biir moomu nag nit ki moom moo ko moomal boppam mooy volonté am boobu nag bu muy wax responsable doomu aadama ci ay jëfam foofa la ñuy xool moo tax jëf yépp ci yéene yi ci lay tegu mu am nag ay tegtal yu bare bare yoo xam ne ñu koy faral di jëfandikoo ngir saxal ne nit am na liberté sañ-sañ soppaxandiku ci ay mbir ci misaal ci yaram li ngay gis nii am na ci cër yoo xam ne nii yow lay neex nga yëngal ko sama loxo bii mën lay neex ma yëngal ko wala ma bàyyi bañ ko yëngal waaye nag am na cër yoo xam ne muy yëngatoo ak na muy dale du ci sa sañ-sañ sa bët bi ni muy xefee ni muy xeppee ci sa sañ-sañ da koy def automatiquement waaye nag sa loxo bii moom bu la neexee nga yëngal ko bu la neexee doo ko yëngal gannaaw ba am naa ci samay cër yoo xam bu ma neexee ma yëngal bu ma neex bañ koo yëngal kon tegtal na ci ne am naa liberté ci foofu léeg-léeg itam ci yëg-yëgu biir ku nekk ci ñun boo toogee yow dong ba xool ci sa biir da yëg ni man mii kat li may def man la neex ma di ko def loolu itam tegtal na ci ni kon nit am na liberté ku nekk ñun boo toogee delluwaat sa biir yow dong da li ngay def yow la neex nga di ko def am na baat bi ñuy faral di jëfandikoo ci wolof lool lu bari léeg-léegi sax dañ ko jàppee kii ay teggin waaye dañ koy fa baat rek baat baati wolof yi la bokk mooy nit léeg-léegi boo ko sañ a buy jëf nga di ko sañax di ko sañax ak loolu mën naa tudd ne maa tey boobu waxin na ci ne kon la muy def moo ko ci jubloom boppam la koy defee te kon maanaam ma ngay waxee ne kon am na sañ-sañ kon yëg-yëgu biir ku nekk ñun am na yëg-yëgu biir boo xam ne nii daf lay wan ne la am nga liberté am nga sañ-sañu soppax ni ko ni nga bëgge am na tam lu ñu tuddee li nga xam mooy tënk askan lu mel ne luwaay lu mel ne règlement yi lu mel ne aada yeeg lu mel ne taqaalid lu mel ne diine jéeg loolu ñu ko boolee moom la ñu tuddee jumtukaay yi nga xam ne tënk aw askan jumtukaay yooyu tënk askan nag balaa mën a am tekki maanaa day fekk nit ñi am sañ-sañu def ak bañ a def loi balaa tudd dëgg-dëgg day fekk ñu am sañ-sañu ba def ak bañ a def diine tam balaa am naa dëgg-dëgg day fekk ñu am sañ-sañu def ak sañ-sañu bañ a def kon ñett yooyu dafay tegtal ne kon nit am na yëg-yëg ci ne moom am na liberté liberté boobu mu am nag moom dong lay neex. ñu wutal ko fu mu yem wala mu bañ ko wutal fu mu yem waaye bu ko keneen wutalee fu mu yem rek boobaa doo tudd liberté waaye leneen lay tudd kon ci biir waxtaan dañ gën a waxtaane lan mooy baatub liberté la lan ci mën a déggee am na tuuti wuuteem ak li ñuy wax li ngay maanaam jéego bi def ngir mën a dund sa liberté boobu bu ko defee bu ñu noppee dañu xool liberté boobu nga xam ne baat la boo xam doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko waaye nag am na lu ñuy feeñe ni ñuy feeñe nag ci lay jëmmoo ci ay barab yu baree bari bu ko defee nag bu ñu lépp danañ jël lan moo ci taxawaayu lislaam ci feeñam googu ci misaal tey pas-pas sañ-sañu am pas-pas bu la neex loolu ci melokaan yi liberté di jëmmoo ci la bokk daañ xal lan la ci lislaam wax sañ-sañu xalaat liberté nga am liberté ci xalaat moom it ci jëmm nit liberté jëmmoo ci la bokk moom it lislaam am na ci gis-gis daañu ci ak buñu ci àgg dañ ko wax xay sañ-sañu wax sa xalaat man la xoriyat taabir mooy li ñuy wax liberté d'expression maanaam nga am sañ-sañu wax sa xalaat loolu itam ci melokaan yi nga xam ne ni liberté de jëmmee ci bokk moom it danañ ci gis ne ko lislaam déggee ak lam ci wax danañ wax tam ci sañ-sañu tuxu ci suuf si kaw suuf si maanaam tuxu jóge fii dem fële wala nga dëkk fu la neex moom it ci ni liberté di jëmmee ci la bokk moom it danañ wax la ci lislaam gis sañ-sañu moom ak sa sañ-sañ ci moom dara lii maa ko moom man dong sequma ko kenn moom it ci ni liberté di jëmmoo ci la bokk moom it daañ wax li ci lislaam gis ba ci relation bi nit di seq ak soxnaam liberté daf cee jëmmoo mooy saa yu la neexee nga yemale ko foofa ak wéyal gi dafay dellu si yow tam daañu wax li ci lislaam gis yooyu ko jàngatee daañ gis ne ki dañuy mën a tënke ndax lislaam nan ñuy mën liberté doomu aadama wala def koo tënk ak lan moo ko wuutaleeg yeneen système yi nga xam ne nii ñu ngi fi ba noppi ñoom di ko tuumaal ne ko yow da ngay tënk doomu aadama da koy xañ liberté am ñoom lan leen wuutale ak ñoom boo defee kon baatub xorriya nag lan ban déggin lañ ci am waxoon nañ ko léegi ne daañu jafe lool ñu am définition boo xam ne nii day matale sëkk ci dégginu xorriya ndax dañ koy jëfandikoo ci fànn yu baree bari xam-xam yu bare dañ koy jëfandikoo ñuy gëstu ci wàllu xam-xam bi nga xam ne nii matière lay jëflanteel dañuy jëfandikoo liberté mooy matière ci biti wala ñuy jëfandikoo xam-xam yi nga xam ne ni ci wàllu dundi doomu damay dem ñoom sax ñu ëpp lu ñu koy jëfandikoo waaye daal bu ñu xoolee te gën ko tënk lépp dañuy wax ne liberté mooy lan mooy jëf yi nga xam ne nii danañ koy def te di nekk ci wéeru ci ay loi ak règlement yoo xam ne ni lu mënta lay doon yoo xam ne ni day génn suñu man-man ñun jëpp jëf joo xam ne ñu koy def te bañ koy def amul lenn muy jóge ci bit ñu gàllu ci lu dul suñu man-manu bopp boobaa dañ naan def jooju liberté am na ci wala boog mooy mbooleem tànneef yi nga xam ne nii danañ ko tànn suñu tànneef bopp te kenn du jóge ci bit dañu tànnal wala bul tànn kenn duñu forcé ci tànn wala ñàkk tànn kon foofu day wane ne liberté kon mooy nga mën a def te amul kenn kuy am pouvoir wala man mën ci sa kaw di la orienté ngay def waaye yow dong yaay xool la ngay def ak la ngay bàyyi dana teg itam ne bu baree ngi nii ñun nga tànn ci yaay xool ba nga bëgg nga tànn ko te du am lenn lay forcé jóge ci bitti ñëw naan la tànnal wala bul tànn ñu ne nag tànn googu nag nit daf koo mënta ñàkk bañ a def kon adduna bi tànneef yooyu kon defe doxeeg sa xorriya sa liberté nga jëfandikoo ko daa mënta ñàkk ndax nit ci boppam il faut mu tànn tànn leen même boo bañoon tànn sax dañ naan da tànn ñàkk tànn tànn bañ a tànn ak tànneef la mooy dangaa ngaa tànn bañ a tànn kon nit mënta ñàkk bañ a jëfandikoo ay sañ-sañam liberté am bu ko defee nag loolu nag bu ko doon xool nag ni muy feeñe ci yeneen xam-xam yu baree bari bi ci jiitu mooy. xam-xam bi ñuy gisee théologie théologie mooy xam-xam bi gëstu ci wàllu diine yi ak li ci aju ci lislaam ñu koy tuddee ilmul kalaam ilmul kalaam yeneen diine yi mooy mooy mooy théologie ci yeneen diine yi mooy xam-xam bi nga xam day gëstu diggante nit ak jëfam diggante nit ak suñu borom ñooñu foofu a xoole baatub sañ-sañu def ñàkk def ndax foofu lay gën a fese ndax ñu ñëpp dañoo nangu ne suñu borom moo ñu bind moo ñu yilif tam nag waaye ndax lépp lu ñuy def suñu borom moo ci dugal loo xam ne nañ ko defoon ñu tag ko def am na lu ñuy def loo xam ne nii seen seen bopp la koy defee loolu mooy laaj bi nga xam ne nii moom la ñuy laaj léeg-léeg ci wàllu théologie moo tax foofu dañuy gis ne day am ñaari melokaan ñaari diggante ñaari taxawaay ca lañ am am na ñoo xam ne ci gëstukat ci wàllu diine dañoo gëm nit am na kàttan am na vol volonté bu mat sëkk ci soppaxndiku ci ay jëfam kon gannaaw ba nag am nga man-man ak volonté bu nga sëkk ci la ngay jëf nga tànnal ko sa bopp du ko def bu fekkee yaa ko tànnal su bopp di ko def nag booba responsabilité ci loos lay gàll ñooñu dañoo gëm ni kon nit am na liberté diggam ak la muy def te moo koy tànnal boppam jëfal ko boppam lu ca juddoo tam nag du ko may ñooñu dañu layal seeni bopp ne ngir ñu may wax ne yàlla ku maandu la il faut ñu nangu ni nit am na liberté ndax nit kat su fekkoon amul liberté suñu borom bu ko mbugalee wala mu wala mu yool ko maanaam layal dana jafe loolu nag ci seen waxin seen déggin ñoom la xëy na seen déggin la maanaam mooy ne balaa ñoo mën a wax ne suñu borom am na maandu te dëgg-dëgg nit day am sañ-sañu def ak bañ a def ndax tey nit yow dong en tant que nit ngir boo ko forcé na ko defal nangam mu def ko ba noppi ñu duuma ko ca wala nga mbugal ko ca loolaa dañuy wax ne da nga ko ëpp doole ko waaye yaa ko forcé mu def ko moo tax ñoom ñu ne kon ngir ñu mën a jëmmal ne yàlla de ak maanuteem bi wër la dañ naan sunu borom bi ñu bindee ba noppi nag ku nekk daf laa defal sa biir volonté ak kattan boo xam ne nii moo lay may loo bëgg def def ko loo bëggut def doo ko def boo ko defee nag volonté boobu ak kattan boobu nag ci la sunu borom bi xisaabe boo ko jëfandikoo ci baax <clears throat> mu fay la lu baax boo ko jëfandikoo ci safaan mu def leen teg ci maanoom mu jéggal la wala mu teg la lim la war a teg boobu mooy taxawaay bi beneen taxawaay bi nga xam moo jiitoon boobu nag moom la ñu ñi nga xam ne ñoo gën na ñoom nit nit la muy def amu ci benn man-man dañ naan la sax yéefar bi suñu borom la neex mu nekkub yéefar jullit bi suñu borom la nekk mu neex mu nekkub jullit ñoom dañoo gëm ne nit amul benn sañ-sañ amul benn kàttan ci soppaxndiku ci ay jëfam ñoom sax dañuy dem ba ne nit ak garab ñoo yem xam nga loolu dañ naan garab gi meññ na ndax dëgg-dëgg garab du meññ dañ koy meññal ndax sunu borom mooy kàttan suñu borom moo koy meññal dañ naan ndox mi daw na ndox du dawal dañ koy daw ndox ci boppa du daw dañ koy dawal ñoo nag nit tam noonu la bu naan nit def na kon jëf ji dañ ko koy askanale ci nangu ko noonu du ko askanale majaazan rek ci askan nangu ko noonu waaye dëgg-dëgg aji jëf ji moom mooy yàlla ñoom loolu lañ gis lu tax ñu ne ñoom ñu jëm ci côté boobu dañ ne suñ nangu la nit la muy jëf moo koy wutal boppam moo koy créer boppam kon boobaa dañ naan am na ñaari créateur mooy yàlla day bind nit di bind yàlla day bind nit nit bind jëfam ñu ne nag ñaari bindkat yooyu nag bu amee mën nañu yóbbu ci bokkaale ñu ne kon nag ngir gën a setal jëmm yàlla ji gën ko wéetal yëf yëpp nañ ko jooyal jëme ko ci yàlla nit moom ñu xañ ko lépp loo xam ne mooy xeetu liberté kon lépp luñ ko askanale dañ koy askanale ci médiation rek daganal ko noonu waaye dëgg-dëgg aji jëf ji moom mooy suñu borom ñaari école yooyu ñoo ëpp ci ci ci ñi ci wax am na ñoo xam dañoo ñëw nekk ci digg bi ñun ñun aqida bi ñu gën a aqida asariya foofu la gën a taxaw ci jëfi doomu aadama moom dafa gis ni jëf doomu aadama kas bu la koy tuddee kon jëf ji yow doo ko créé maanaam doo ko doo ko xal waaye nag yaa koy fàggu sa bopp fàggu gi nag sa iraada ci nga koy defee kon fàggu boobu mooy tax nga am ci responsable ci la ngay def mooy li ma joxoon misaal ma joxoon léegi ci wàllu jëfandikoo jumtukaay yi kon jumtukaay yi moom baaxul bunul léegi nag yow sa yéene bi nga am bi ngay jëfandikoo jumtukaay bi nag mooy tax nga am ci responsabilité ak nga ñàkk ko ca am walla boog mooy tax nga am ca ab yoon wala nga am ca ab safaan bu ko defee kon da gis ne kon ñetti taxawaay yi ne yoo ci wàllu théologie wàllu ci ilmul kalaam dañuy wax ci ku nekk nag ak na ko déggee ñetti école yooyu nag bu nekk am nga looy looy layale léegi nag nit ki nag bu nekk am na ñu ko topp loolu tam dafay teg tegtale ne ku nekk yaa ngi jëfandikoo sa liberté ci xool école ba la gën a doy nga topp ko loolu yaa ngi jëfandikoo sa liberté kon liberté ci wàllu diine foofu lañ koy dugal buñ ci waxtaan ci wàllu diine mooy foofu lay dugg ci diggante nit ki ak la muy jëf diggante nit ki ak suñu borom mi ko bind loolu foofu la ñuy jéem a gëstu waaye am na nag gëstu bu gën a xóot boobu boo xam ne ci wàllu xalaatin doomu aadama lay tënku. ñoom day bu ñu waxtaan ci liberté dañ koy jox déggin yoo xam ne nii ruux lay am maanaam loo xam ne nii ci wàllu ruux doomu aadama lay nekk ñoom dañ naan liberté tekk mooy ki dem ba mucc wala ba goreel ci lépp loo xam ne nii mën na koo gàllankoor ci dox bi muy dox ci réaliser objectif finalam bi mu am ci bi mu am ci ak nekkam li la fi indi seen nekk ci àdduna bii te moo indi fexe ba am fi texe texe goo xam ne texe xel lay doon du texe du ñuy làmb di ko deg ñu ne nag boo demee ba libéré sa bopp ci lépp loo xam ne nii mën na laa gàllankoor ci dox bi ngay dox jëm ci mën a réaliser sa objectif final bi nga xam ne nii moo la tax ne ci kaw suuf te mooy nga réaliser texe ci xel ci kaw suuf ñu ne loola mooy liberté mooy da ngay dem a dem ba. saw yaram dootu la gàllankoor mbiri bit yi dootu la gàllankoor moo tax boo demee ci mutasawuf ni ñoom liberté ñoom ay degré la bi ci njëkk mooy nga libéré sa bopp ci bànneex matière maanaam lekk ak naan ak yu noonu nga dem ba xiif dootu la gàllankoor mar dootu la gàllankoor daray àdduna dootu la gàllankoor mu ne boobu mooy bi njëkk bi ci topp mooy nga dem ba libéré sa bopp sa bëgg-bëgg bopp sa volonté bopp yow dootu am loo bëgg dootu am looy fu boobu mooy deuxième boo demee nag ba jël sa volonté bopp dugal ko ci volonté yàlla bu mag bi nag nga xam ne de mu nekk benn boo mooy ak nga ci fa nga jëmoon kon gis ngeen kon kon liberté moom lañ koy dégg ci wàllu mu tasawuf mu xaw a jege dégg ñu ci philosophie am léeg-léegi ci fànn boobu moo tax ñoom dañuy deme ne li ñuy tudde dëgg ñu wér dëgg-dëgg dañoo wax ne ab sang la boo xam ne nii tépp ko xas yiif dootoo ko ci maanaam nit ki bu demee ba xam dëgg-dëgg ba gis dëgg ba jànkarloolu moom dootu mën a gis lu dul dëgg moo tax am na foo xam nit bu fa àggee dootu mën a nangu mukk ay bànneex ak i caprice li ay maanaam bëgg-bëgg bakkan ak yooyu di ko yombatati waaye dootu nangoo nekkub jaam moo tax ñu nu kon liberté dëgg-dëgg mooy nit ki libéré boppam ci jaamu leneen lu dul yàlla ndax dem na ba xam ne yàlla doon mooy dëgg mu ne kon sama liberté kon mi ngi si lépp loo xam lu dul yàlla dootuma gàllankoor ci jaamu gi mu waar jaamu yàlla ba tey day teg te baat bi rek maanaam compliqué bu mu ko xaw a compliqué ndax dafa xaw a nekk baat boo xam ne nii dafa raflewu maanaam bu lu ñuy làmb di ko daj kon ñoom ci ñu ngi ko dégg mooy liberté nekkul ngay tànn diggante ñaar yu bokkul ko dégg mooy nga goreel sa bopp ci sang bu dul sa bopp nga goreel sa bopp ci lépp loo xam daf lay xëcc jëmale ci safaan dañuy dem ba ne kon nag li ki nit ki libre dëgg dëgg mooy ki nga xam dem na ba moom lu baax dañoo taxalikoo te duñ taxalikoon kon ñu ne kon nit ki dëgg dëgg mooy ki nga xam ne nii dem na ba obligation morale ci wàllu jikko moo ko tànnal boppam te kenn fekk sinkoo ci mooy volonté boo xam ne nii dimbandikoo na ci xam ba tànnal boppam dëgg mooy volonté boo xam ne ñu lu baax rek moo koy puus waaye leneen dootu ci dugg moo tax foofu ñun dañu dem dem ba xam ak xam ak xàmmee ñu koy lënkale ak liberté mooy nit ki dem na ba xam ne lii mooy lu baax mu taxalikoogu moom kenn néew na taxalikoo la lu baax waaye yaay demal sa bopp ba gis ne lii mooy lu baax nga tànn ci sa coobal yu bopp taxaw moom te dootuma taxalikoogu moom moo tax ñoom dañoo gëm a ko nit ki lu mu gën a xuus ci wàllu xam lu mu gën a xuus ci xéewal suñu borom yi libertéem da yokk waaye du wàññi ko day gën a am doole waaye du gën a néew doole ndax dama gëm ne saa yu ma gënee xam dëgg di ko gën a nanguwul sama bopp te boobaa nag sama liberté day gën di yokk kon nga gis ne kon am na déggin yu bari yu am ci déggin bi nag mooy déggin bi ci xalaatkat yi am ñoom loolu lañ ci am bi ma njëkkoon wax nag mooy bi ci nitu diine yi di déggee waaye ñoom ñaar sëréwuñ ndax bi ma waxoon léegi itam fam lay yóbbu même bu dul lislaam bu dul leneen tam nit ku baax ngay doon moo tax ñi nga xam ne nii ay xalaatkat yu mag lañ la ñuy jëfe la wax lépp amul lenn lu cay wuuteeg la la diini sant wala lam lay aaye ndax ñoom dañoo gëm ne kon xel mu set ak naq ak toxal bu set du ñu wuute xel bu setee ak toxal bu set maanaam xel bu setee ak la yàlla lay wax te muy lu set moom tam du ñu wuute saa yu wuutee rek am na am na am na ci dugg ci bokkul kon benn xel jëfandikoo nañ ko war a jëfandikoo wala dégg nañ toxal ga nañ ko war a dégg. bu ñëwee nag ci wàllu ni muy jëmm ci ñu ko waxee noonu du pare nag léegi ngir nag ñu mën a xam ne kon liberté dëgg-dëgg mooy lan dañuy xool nag léegi ni muy jëmm ci wàllu pratique ni ñuy dundee par bis dund gi ñu dund par bis naka la ñuy a wanee ne liberté boobu ñu yëgoon suñu biir ba goreel suñu bopp ci lépp nag mën nañ koo jëmmal ci ni ñuy dund ci liberté boobu nag kon ci la nit di nekkee responsable ci la muy def moo tax dañuy wax ne kon yooyu lépp looy def wala nga di ko wax walla nga di ko jëf lépp lu ci jógee bu ko jiñ kenn jéem koo gàddu sa bopp ba ma sëkk bul jàpp ne kenn dan la ci fekk nag dina dimbale ci gàddu la ndax yow na neex nga def na ngay mel tam ak na ngay doxale tam bul gëm ne kenn dala ciy dimbale yow yaay xool nii laa bëgg a mel ci nii laay mel nga mel noonu déggil la ci liberté dafa am ñoo xam dañoo gëm nit ki nu mu mel moom la neex mu mel ko dañuy wax ne ki ñu defub jaam moom la neex ñu def ko jaam bu ko neexoon kenn du ko defub jaam ndax tey boo yemaloon tey ñàkk sa bakkan ñu def la jaam nga ñàkk sa bakkan moo lay gën a ngi nekkub jaam boobaa kon kenn du la defub jaam ñu ne kon bu la defee jaam yow la neex nga nekkub jaam nit ki baax tam da ko bëgg a baax baax nit ki bon tam moom bëgg a bon bon bu ko defee nag moom nga bon nag bu ñu ko jéem a jiñ kenn loolu dafa naan dégg ñu am solo la xam ne bu ci war mooy da nga nekk ci na neex ba mel noo xam ne ñu ñu gis noo xam ne neexu leen nag ñu bëgg koo dañ ma ko def diwoo nangam diwoo ma ci xëcc diwoo loolu du lay loolu du lay ci kanam suñu borom même suñu borom subhanahu wa taala nee ba ci kanamam nga naan diwoo ma ko joxoon diwoo ma ko defoon diwoo ma ko defoon loolu du faw lay ku nekk da ngay taxaw nga rek nag suñu borom sa bopp ndax joxoon na la kàttan ak man man boo xam ci àdduna mën nga ko jëfandikoo ci jëfandikoo bu baax jëfandikoo kon responsable doomu aadama dafay engagé wu totalement maanaam amul lenn lu cay manqué ci mbir mi kon amul ci dogalal sa bopp ci mbaax wala safaan léegi nag gannaaw ba yoo xam nga ne ko mbir mu neer na sa bopp nag responsabilité li ko yéegee mooy da ngay jàpp ne kon la ngay def da ngay jàpp ne nit ñëpp foofu lañ war a jaar bu fekkee da ngaa am ay lëndëm nag la ngay def nag li ñëpp fa lañ war a jaar nag ko war ngaa bàyyi xel ne ku ca jaar am nga responsable jaar ki mu ci jaar kon su may dox man ci wàllu moral dama naan yoon yi ma jaar du ci dox gis naa ne mooy yoon wi ñëpp war a dox te kon ci laay dox gannaaw man gën naa ne nag mooy yoon yu baax tànn naa ko te li ñëpp war a dox nag bu ci ñëpp doxee bu dee lu baax am naa ci responsabilité bu dee safaan am naa ci responsabilité loolu loolu ci xadis bu ko jàngalee xadis jàngale na ne képp ku rëdd aw yoon muy yoon wu baax képp ku ca jaar bu ameem yoon da nga ci amul yoon waaye tam képp ku rëdd amul yoon muy yoon yoon wu baaxul képp ku jaar am ca bàkkaar yoon yu ko rëdd da ci am bàkkaar mooy ne kon nit ci wàllu jikko ak melokaan boo àggee ci day talum ne man kat sama doxin bii gëstu naa ko ba xam ne ci la ñëpp war a jaar ma jaar ci boobaa nag yaa ngi door am yaa ngi door gën ne am nga responsabilité ci mbirum foofu nag kon ci la dégg nii nga xam ne ci wàllu yëg-yëgu biir ci lay tos rek dégg nii ci wàllu pratique ci wàllu jëfandikoo kon nit buy buy buy buy tëralee boobu aw yoon day gëm ne kon ñëpp la koy tëralal war ca ànd ak ñëpp kon liberté ak ak ak masuliya maanaam xorriya ak maanaam boo bokk liberté ak ak responsabilité tax ñaar ko taxali kon mënuñoo waxtaan itam nit ko am responsabilité te amul liberté moo tax kuñ forcé wala ko fàtte wala ko juum duñ ko jàpp ne la muy def am na ci responsabilité bu fekkee dañ laa forcé jëf ji wala ba nga koy def dangaa ngaa fàtte def ko wala da ngaa juum def ko. dañuy jàpp ne ngay def amoo te responsabilité bu mat sëkk lu mu gàtt gàtt wala boog bu ñu fekkee am nga ci responsabilité tam responsable bu mat sëkk jëf jooju ci ci ñuy yenn ñoo ngi al fexlul mutawallit fexlul mutawallit mooy jëf joo xam ne nii ba nga koy def jubluwoo ko la ci juddoo jubluwoo ko ci woon loola doo ci am responsable ci misaal tey man su ma jëloon portable bi ku ne xam ne portable du rey ci wala boog ko gën a woyof su ma bi rek woyof lool ma sànni ko nit mu jaare ci faatu ku nekk xam ne ne mouchoir du rey wala boobu wër ma daawul rey doomu aadama ci ci ci ci liñ xaar teem a xam jëf jooju responsable bi ma ci am bokkut ak ma jëloon paaka jam ko nit mu faatu jëf jooju moom jëf mu kon responsabilité dem noonu lay demee moo tax ñun la kiñ forcé wala ki nga xam dafa fàtte wala ki nga dafa juum def la muy def du ñu jàpp ne am na ci responsabilité bu mat sëkk kon responsabilité ak liberté ñoom ñaar ñooy ànd loolu nag bu ñu ko déggoon day baax lool ci suñu dund dañuy jariñ fu baree bari fi nekk nii ñun dafa bari ñun ñoo xam dañuy làqatu ci gannaaw dogal bu yàlla ak bu àtteem nit day def jëfam bu réeréer ba ñu wax ko bu ñëwee ñu ne ah loolu da yàlla ko dogal kon ana doomu aadama ci misaal tey man su ma yoroon oto di ko dawal mu wóor ma ne fii mbooloo fii jaar ma yor dawal cent ci biir dëkk bi téeméer ma ko dawal téeméer ci biir dëkk bi ba fekk ci nit mu faatu dañ kenn bu kenn wax yàlla la kooku safar bi doon dawal oto moom moo ko responsable kenn moo ko moo am responsabilité tey su ma tabax bi dama ko war tabax. feer nangam laa ci war a def ciment bi ci war a def nangam la dosage bi nangam la xeer sàngam laa ci war a def loolu lépp ma bañ koo def ñëw def kon nu ma neexee ay nit ñëw dëkk ci tabax bi daanu seen kaw mbooloo faar ci alal yàqu ci kan moo ci am responsabilité ki ko doon tabax moo ci am responsabilité kon nit ñi dañoo war a gëm ba ngay def la ngay def ànd ak sa xel di ko def lu ca juddoo kenn du la gàddul yaa koy gàddul sa bopp loolu kon dañuy gis ne kon liberté ak ministre kenn ko dàq wala sax bis safaan bi dafa am cosaan ci lislaam lislaam dafa saxal na kon nit libre na waaye itam libertéem boobu moo koy jox responsabilité mën ta ñàkk ndax ngir sariya mën a am am maanaa sax nit dafay libre ndax sariya ko yoon ay toog ay jëf lañu lay togg te nit boo koy togg jëf day fekk mën a am sañ-sañu bañ a def ak def bu fekkee amul sañ-sañu bañ a def ak ñàkk def du am responsabilité la muy def kon balaa ko mën a am day fekk mu dem noonu mu des na kon lislaam kon léebat léebat du ko dàq waaye daf koy nos waxoon nañ ko ci départ bi nos bi nag mooy mu xamal la ne la fii ak fii boo ko fa jëfandikoo lii ak lii nga ci am nii ak nii boo ko jëfandikoo lii ak lii moo la ciy fekk kon kay njuumte lu mag li nga xam ne ñun ñëpp daf ñuy dal mooy nëbbutu bu ñuy nëbbutu ci gannaaw liberté boobu ngir daw suñuy responsabilité loolu nag du liberté mooy loolu moom mooy anarchie mooy ay caaxaan dëgg mooy nit ñi gëm ne dañoo am ku nekk am nga sañ-sañ yi dafa bañ a def waaye kenn amul sañ amul responsabilité muy def loolu moom mut kii loolu nag jëpp na jëpp jamono ji ñu toll lépp ci li ñuy dund loola la mooy nit ki day def la ko neex ba pare du nangoo assumer responsabilité yi cay juddoo loolu nag wuute nag déggin bi liberté am mu des na kon léegi ñu war a xool nag gannaaw bu ñu ko jéemee leeral noonu te muy lu xaw a jafe ndax baat bi dafa raflewu kon nag dañuy xool ay pàcc bu nekk ñu xool la ca lislaam mayee liberté ñu ñëw ci xorjot tafkiir te mooy liberté ci xalaat nit bokk na ci liñ koy xam ne bu ñu wax kan mooy nit da nga naan nit de ndundat la ndundat la boo xam ne nii day xalaat kon xalaat mooy yaxut cosaanub doomu aadama saanub doomu aadama dëgg la tax ñuy wax nit mooy xalaat mooy jëfandikoo xelam moo tax nit bu noppee am xel wala bu noppi koy jëfandikoo dañ koy jox weneen tur kenn dootu ko tuddee nit nit ko am xelam dem wala jëfandikoo dul xelam am na weneen tur wu dul nit kon nit ak xalaat ñoom ñaar dañ koo moo ñaare xalaat nit ni muy juddoo di lekk di naan noonu lay judduwaalee xalaat ni muy juddoo di am yeneen yëg-yëg yoo xam daf ko judduwaale noonu lay judduwaale xalaat moo tax loolu nga xam ne yàlla daf koo mooñaane nit kenn mënu koo xañ doomu aadama gis nga maanaam sañ-sañu xalaat kenn mënu koo xañ nit ak lu ñu la mën di def ak lu ñu la mën di teg sañ-sañu xalaat mën na ci ndax ko judduwaale kenn mën na koo xañ waaye nag xalaat yi ñu ngi judduwaale ak xalaat yi ñu nos orienté ko mu tegu ci yoon dañoo bokkul ci misaal tey wax nañ léegi ne nit dafa judduwaale lekk ak naan xale bu ndaw ab liir wala perantal fi nekk nii lépp lu mu gis mën na koo lekk suuf sax boo ko tegoon fii mu tibb ci suuf si def ci gémmiñam ndax def na ne war na ko mën a jariñ kon foofu ay waajuram ñoo war a dox digganteem ak mu bañ a jëfandikoo loolee ndax wér-gu-yaram ak wér-gu xelam ci la nekk moo tax dañ koy leeral na ko nag lii ngay lekk du nii kenn du ko lekk di ko tere ba mu xam ne baaxul xam ko ne du dafa baaxul bu ko defee ba mu bàyyi ko noonu ñu doxee nit noonu ñu doxee diggante nit nag ak jëfandikoo yooyu nga xam ne yàlla def ko ko mooñaale noonu la ñuy doxante doxee diggante nit ak orienté xalaatinam li nga xam ne ni yàlla daf ko mooñaale mu judduwaale ko bu ko defee kon nit duñ kenn mënta dox digganteem ak xalaat waaye nag mën nañoo orienté xalaat bi jubbanti ba mu teg ko ci yoon yoo xam ne nii da koy amal njariñ moo tax dañ ko naan bul xalaat ci jëmm yàlla ji waaye xalaatal ci mbindaafanu yàlla yi ndax jëmm yàlla ji doo ci jubalee sa xalaat dangay dem ba sa kàttanu xalaat gépp jeex ci te doo ko mën a matale doo mën a matale jëmm ji te koo waa nag mooy nga sonn coono buy dem ci neen moo tax ñun la kon bépp coono boo naroon daj ci xalaat loo xam ne doo ca jëriñ njariñ li dem ci neen fexeel ba dugal ko ci loo xam ne daf lay amal njariñ moo tax lislaam nangu ne ku nekk judduwaale nga sañ-sañu xalaat waaye nag day ñëw nosal la ne la xalaat bu fexeel ba di ko jumale ci loo xam ne nii dana la amal njariñ ba lislaam soow ba léegi nag dañoo gis ne sañ-sañ boobu daf koy sàmm civilisation bi nga xam ne ni jullit ñoo ko taxawaloon tegtal la ci xalaatkat yi gën mag ci àdduna bi léegi ci jullit lañ déparé tey boo jëloon maanaam xam-xam bi ñuy tuddee philosophie philosophie mooy xam-xamu xalaat tey buñ koy waxtaanee ba ñoo suñu jamono tey jii jullit yi ñoo ko téye yokk ko sàmm ko ba jébbal ko ñeneen ñu mën koo jëfandikoo te buñ la tuddoon tur yi mag a mag ku mel ne imam Ghazali ku mel ne Ibn Rushd ku mel ne Kindi ku mel ne Farabi ak ñu mel ne nga xam ne xalaat kat yi ci àdduna bi nag mën nañu xalaatkat bu mag woon kon bu fekkonte ne sañ-sañu xalaat amul doon ci ñooñee duñ ci nekk tey te moo ne ñooñee tey bari xalaat kat ci wàllu Occident yoo xam ne nii tey ñooña seen xalaat la ñuy jariñoo ci lañ taxaw ba taxawal seen xalaat yu ñu bopp kon ba islaam taxawee ba ni mu taxawee ba taxawal civilisation xalaat nit ki dafa amoon sañ-sañ xalaat moo tax même ci sariya daf ciy feeñ lislaam dafa feeñ ne dañuy wax jëf leen seen jëfandikoo leen seen xel bari na aay yu ci alxuraan yoo xam ne li mu tëgg lépp mooy jëfandikoo sa xel xanaa du ngeen xalaat xanaa du ngeen du ngeen jëfandikoo seen xel yu mel noonu day dem sax ba mel ne bu fekkee jëfandikoo sa xel nag yàgg bàyyi may yeen yi wala sax bàyyi may ñoo lay féete kaw kon lislaam dafa soññee ci nit kiy jëfandikoom xelam wàllu xalaat li ci àddina bépp suñu boroom daf ne fu leen neex xalaat leen ci ndax mën ngeen koo jariñoo fu leen mën a àgg ci wàllu xalaat ci àddina kenn doxul seen digg ak moom da leen dox ci kaw suuf si yor seeni xel seeni xalaat di yor seeni xel di xalaat yor seeni mopp di dégg yor seeni bët di gis li ngeen di gis di ko dégg seen xel di ko analyser ngeen di ko mën a jariñoo kon lislaam soññe na ba tàyyi ci wàllu xalaat léeg-léeg sax dafay nekk faraata ci nit nit di jëfandikoo xelam dafa nekk léeg farata ci nit barab yu bare bare dañ naan di jëfandikoo sa xam ngeen ni Muaas ibn Jabal ba koy ba koy yónni yónni yónni fële ba mu ko laajee daf ko ne nanga ma nang soo ko mu ne ko nag nga jëfandikoo sama xel mu ne ko mbir maa ngi noonu kon xel suñu boroom daf ñu koo jox ngir ñu jëfandikoo ko te xel moomu nag moo ñuy wuutale ak bàyyi ma suñ ko xasee ñàkk jëfandikoo ñoog bàyyi ma ñooy yem wala bàyyi may sax dañuy daal di tane te ba ci mbirum diine yi sax lislaam dañu ubbi bunt bu yaatu ñu mën cee xalaat ndax lislaam xam na ne alxuraan bi mu wàccee dafa wàcc ci bëbëstal indiwul détail yépp te doomu aadama nag dundam bis bu set saa yu xëy yu bees da ciy am ñu ne ko nag yu bees yooyu nga xam ne day feeñ ci sa bind bis bu set dañ laa sant nga jëfandikoo sa xel ngir natt ko ci yooyu nga xam ne islaam alxuraan da koo tudd ci bëbëstal nga xool noo cee génneeb àtte loolu mooy ijtihaad mooy ijtihaad mooy farlu farlu ci diine weesuut loolu mooy am na lu bees loo xam ne nii mën naa am ñëwut ci détail ci alxuraan ñëwut ci détail ci xaddis bu wér nga jëfandikoo sa xel ba nattale ko ci nga xam ne la ci bëbëstal nga génne ci àtte bu bees loolu mooy ijtihaad te loolu xel moo koy def xam-xam bi ñu tuddee usul fiq ku nekk xam na ne lu ci ëpp ñëw xel a koy def lu ci ëpp xel a koy def ilmul kalaam xel la mooy ni ñu mën a jëfandikoo xel ba layal yaxub diine te duñ indi beneen yaxub diine fi ne ci misaal tey am na koo xam boo doon waxtaan ak moom te moom gëmul alxuraan nga di ko tari ay alxuraan yu jeex yi dul jeex moom la doo ko mën a convaincre fa nga ko mën a convaincre mooy da ngay teg aay yi fële def ñëw ak moom ci wàllu xel ba mën koo convaincre ci wàllu xel loolu mooy njariñu ilmul kalaam mooy ilmul dañoo gis ne am na ñu baree bari ñoo xam ne nii jullit yaa ngi jëfandikoo ak ñoom te doonuñu alxuraan te jullit war nañ leen convaincre ci alxuraan ñu ne kon ilmul kalaam loolu lay mooy kalaam mooy jëfandikoo xel ngir mën a défendre diine kon am na xam-xam yu baree bari ci lislaam yoo xam ne nii xel kese moo ko jur moo ko jur fiq bi ngay gis ñu ñu koy jàng li ci ëpp boroom xel ñoo gëstu nattale ko ba génne ci yi baree bari foofu lay dellu kon lislaam xañu kenn sañ-sañu xalaat waaye ni mu waxoon de kon da koy nos kon ni muy nosee dund lislaam diine jox dafa ñëw ngir nos dund doomu aadama kon nag du ca bàyyi léegi kon nag ni ñuy orienté nit ki ci la muy lekk ak la muy naan ba du lekk lu koy lor wala lu koy gaañ noonu itam lañ koy orienté ci wàllu xel xalaat ba du ba xalaatam du ko jëfandikoo ci loo xam da koy lor waaye da koy jëfandikoo ci lu koy jari waaye nag dox diggante nit ak xalaat moom kenn mënu ko ndax suñu borom daf ñu ko mooñaan waaye nag ku nekk boo amee xel xam nga ne du caajoo di ko ne lu ñëw rek nga dugal ko ci sa biir xel wala moom lu ñëw nga dugal sa biir lekk gu mën doon bu ñu la ko tegaloon balaa nga koo lekk danga ko xool ci misaal tey bu ñu la tegaloon lekk ci lëndëm ku këris lëndëm këris il faut nga taal lamp xool li ngay lekk lu mu doon naka noonu tamit xalaat yi noonu la war a demee mbir rek balaa nga caa xalaat war nga koon nit ba xam amal na la njariñ wala amal la njariñ bu la amalee njariñ nga jëmee sa xalaat bu la amal njariñ nga jël sa xalaat jëmee ko feneen kon sañ-sañu xalaat ci lislaam lu ñu sàmmal nit ki la te itam kenn mënu koo teree nit ki bu ñëwee ci wàllu pas-pas xëy na fi ñu gën a critiquer lislaam la ci ay noonam mooy ci wàllu sañ-sañu am pas-pas ndax nit am na sañ-sañu gëm lu ko neex wala amul sañ-sañu gëm lu ko neex ñu bari dañoo jàppale ne lislaam day dox diggante nit ki ak gëm la ko soob loolu nag bu ñu koy waxtaanee am na ñoo xam ne noonu lislaam yi dañ koy tuumaan lislaam waaye sax am na benn benn ci jullit ñoo xam ne nii xëy na ñàkk yëf ñàkk leer seen bopp moo tax dañu jàpp ne lislaam day forcer nit ki ci pas-pas waaye ku nekk xam ne lislaam forcer nit kenn ci pas-pas suñ ci waxtaan nag léeg-léeg ñu wóor ko ci ñaari mbir ci misaal léeg-léeg ñun nag lislaam kat gannaaw boo bëggee doo am a sañ-sañu génn kon dalaa forcé noonu dina am lu ci leeral léeg-léeg ñu ne lislaam day jël jaas yi xeex ak nit ñi forcé la ci diine loolu bu leeree dafa naa ne daañ xam ne amu ci lenn amu ci wóoru ci moo tax bu ñu settantaloon bu baax rek lislaam daañ xam ne lislaam sunu borom ni mu xamee doomu aadama moom mu ko bindu defal ko man-man boobu dana xam ne force nit ci wàllu pas-pas amul njariñ ndax pas-pas mbirum biir la mbirum xol la te xol na ku nekk yaa moom sa xol lañ koy gëm ak lañ koy bañ a gëm yaa ci mën a soppandiku moo tax force nit ki ci pas-pas amul njariñ moo tax fi nekk ni même bu ñu forcé nit ki ne ko tey nga nekkul jullit ba mu wane ci kaw ne nekk naa jullit tam ñu kooku naafeq lañ koy tudde ndax la muy fan wane ci kaw du ko dund du bokk ak lam fas ci xolam ndax la muy fas ci xolam kenn mënu ci àgg ba soppandi ko moo tax kon xuriyatu aqida maanaam fas am sañ-sañu fas li la neex loolu ci xol doomu adama lay doon te kenn mën ta dox digganteem ak moom kenn mën ko imposé ne ko lii ngay fas même boo ko waxoon ba mu ñu jàkk jullee ko war a def lépp dem bu ko neexee mu fas kéefër ci xolam kenn mënu ci dara loolu nag lislaam teel na ko xam moo tax alxuraan jàngal nañu ne diine amul force ku ku neex bul gëm léegi dañ la war nag neen nag boo gëmee am nga lii boo gëmul am nga lii waaye nag nga assumer ses responsabilités bu fekkee tànn nga ñàkk a gëm lu ciy juddoo bu ko jiñ kenn boo tànnee gëm tam loo ci gañ xamal ne yaa ko tànnal sa bopp foofu tam bu ñu wax ne xëy na jubluñ ci ne lislaam dafa yem ak diine yëpp déedéet ñun ci ñëpp gëm nañu lislaam mooy diine ji waaye nag principe ba mooy ne kenn du ci forcer kenn kum neex nga nekkub jullit kum neex nga dem nekk leneen ci sa responsabilité lay doon loolu bu ñu delloo ci histoire de l'islam dañ koy gis bu baree bare ku nekk xam nañ ne yonent bi ñu defee fatxu Màkka booba Xurays ña fa dëkkoon ña fa dëkkoon ci Màkka ñu ci ëpp ay yéefar lañ woon waaye ba mu ñëwee mbooloo mu baree bari ak ngànnaay yu ba ëpp leen doole xamal leen ne nanguwaat naa Màkka ci seeni loxo bu ko neexoon mën leen par force te yéen ñëpp da ngeen dugg ci lislaam te boobaa ñu bari dañu wane ne jul dugg nañ ci lislaam donte ay naafeq la ñu doon waaye lu mu leen wax ba ba mu bañ daf leen dem leen booy ngeen ña ca ña ca lislaam doy ñu dugg lislaam ña ca des dem seet leen lañ def kon sañ sañ am pas-pas ci lislaam luñ garanteel doomu aadama gi la kenn du ci forcé kenn ndax daa mënta nekk boo ko bëggoon gëm daa mënta nekk Omar ibnu Xataab ba mu demee Xuds ubbi ko fekkoon fa chrétiens ak na fa nekkoon fa doon fa dund yor jeneen diine ba mu ko ubbee dafa ne leen yéen a ngi nii seen dund garanteel nañ leen ko seeni église kenn du ko laal seeni croix kenn du ko laal kenn du lor kenn ci pas sababu diine kon dañ leen a bàyyi ko ca bëgg dugg ci islaam dugg ña ci des des ci seen diine ba léegi boo demee foofa ay chrétien ña ngi fa di fa dund kon li sañ-sañ am pas-pas loolu lu wér la ci lislaam te mën nañu ko jàngi fu baree bari mu des na kon léegi problème mu tubbi dugg ci lislaam ba noppi nag tubbi loolu moom moo ma tal leeral ci bopp nii loolu tam leneen la beneen dégg nañ ci war am moom ci gëstukat yi bare bare ñu ngi ci jë ñu ngi ci jot a yër dañu wax ne tub bi dafay yàq système bi maanaam dangaa def aw nosin ba noppi nit ñëw bëgg a yàq nosin woowee kon foofa mbugal mañ koy teg foofu la gën a jëm ko ci pas-pas bi ndax dañu gëm ne système bu nekk dafa am ay règlement maanaam mbooloo moo gis ñu tënku dañu am règlement intérieur maanaam loo xam moom la ñuy nosi seen bopp ci biir mooy la ñuy la ñuy nangu ak la ñuy ci biir mbooloo mi dañ naan la nangam ku ko def ci biir mbooloo mi am na sanction nangam dana tegi ci sa kaw léegi nag bala ngaa dugg ci biir mbooloo mi nag lañ xool sart yooyu ba mu doy la soo ca xasee dugg de ba tënku ci nag boo jalgatee sart mbooloo moomee nag la la dal yaa ko teg sa bopp boo ko dina tegee bu ñu tegee mbugal moomee kon jàppal ne da nga ko war a nangu bu ñu doxoon misaal mu gàtt. maanaam li ëpp duñ xam ko te mooy coupé coupé mooy li ñuy def ci terrain yi football ak yu mel noonu ku ne xam na ne bokk ci po bi coupé nga bokk ci yow lay neex bu la neex nga bokk ci ngir nga bañ nga bokk sa sañ waaye nag boo xasee dugg ci biir terrain bokk ci bokk ci coupé bi moom am na règlement yu set yu yu taratar yu ñu teg yoo xam ne nii sa ñoo ko xëtt te boo koy xët ñu teg la mbugal mbir mi noonu dong la mel kon système bu nekk dafa am règlement intérieur boo xam ne nii moo koy tënk règlement intérieur boobu nag képp ku ko xëtt nag am na sanction boo xam bu dalee sa kaw da koy nangu mbirum tub bi foofu lañ koy dugal ndax bu am ñoo xam ne nii dañuy ñëw dugg ci biir yëf yi ngir yàq ko bu ñu duggee ci biir yëf ngir yàq ko nag bu fekkee woon ay ak yu tar yoo xam ne nii da leen di ko yàqee lii dana dal seen kaw mën nañ koo def ci tayef loolu sax alxuraan daf koy wax am ñoo xam ne nii dañu ne ñenn ci ñi gëmu doon lislaam nee nañ dañ daan yebal ay nit ne leen da ngeen di dem bu ngeen demee daal di tuub ne dugg nañ ci lislaam bu ngeen xëyee def ko digg bëccëg def ko bu ngoonee ngeen génnaat ko defee bu ngeen génnee ñi ñi dugg doon lislaam dañu xool ak comme gaa yi dugg nañ ba génn ne kon nañ njëriñ ci biir loolu système yàq mbooloo la xam nañ ko système yàq mbooloo la mbooloo yu bari boo ko bëggee tas da ngay fexe ba adhère dugg ci biir boo duggee ci biir nag def fa diir daal di génn boo génnee nag mbooloo mu bari maanaam ñi seen pas-pas dëgër gu ñëpp dañ lay topp ndax dañu kon du génn na de man yaakaar naa mbir mi kon nag am na leen la ci loolu façon yàqin mbooloo moo tax lislaam nag ngir sécuriser mbooloom jullit nag mu ne nag boo ci xasee dugg amatoo sañ-sañu génn moo tax ci lislaam dañ naan la am nga sañ-sañu dugg ak bañ a dugg waaye nag gëmal ne bokk na ci sart lislaam mooy boo duggee doo génn léegi nag xoolal ba xam léegi nag boo xoolee ba sart boobu nga nangu ko bopp ne boo duggee boo génnee bu netta ngeen buggal moom jàppal ne kon yow yaay bëgg a yàq yow yow yaa ko teg sa bopp moo tax ñenn ci gëstukat yi ñu gën a ñu gën a dëppoo ak jamono ji ñu gën a jamonante jamono ji ñoom dañ naan problème mu tub bi problème mu politique la gën a nekk ci problème mu diine problème mu société la gën a nekk ci problème mu diine bi lay gën a laal ci pas-pas doomu aadama bi ndax fi mu xas tub bi moom même boo ko delloo si woon tam du amal njariñ du amal njariñ mbooloom kon ki tuddi mbooloo mi la tooñ mbooloo mi la tooñ waaye tooñul pas-pas bi mbooloo mi la tooñ mbooloo mi nga xam ne jullit yi ñun la tooñ bu ko defee nag lañ koy teg mbugal lañ koy teg nag moom koy dawal moo tax ñenn ci gëstukat yi ñu mu jéggéen ñoom dañ ne mbugalum tubbi du rey waaye dañuy xool maanaam maanaam tolluwaayu li mu def ñu teg ko mbugal mu toll noonu xëy na ñun nag ci masa maanaam wala boog ngir mi ñuy dox la muy wax wuute na ak loolu waaye am na ci borom xam-xam yi mu jéggéen yoo xam ne ñu ngi wax ne maanaam mbugalum tubbi bu rey nit ki waaye dañuy xool moom tolluwaayam ñu teg ko mbugal mu toll noonu ñu teg ko mbugal mu toll noonu xëy na waaye nag fii bu ñu waxtaanee kon ñun lii masab Maalik wax moom la ñu gën a moom la ñu moom la ñu gën waaye tey lii itam am na xalaat yu ciy dugg te li may wax itam ku ci bëgg gën a yaatu am na téere yu bare la yoo xam boo ci dellu da ko fay gis am ku jox Cheikh Rachid Ghanouchi borom xam-xam la mu ngi tudd tunisien jiite mbooloom jullit yu bare bari ca Tunisie bi mu nekkee tuddee ko alxurriyaatul aama fi dawla islaam boo fa demee li may wax dana ko cay leeral pas-pas mbirum tubbi dana ca lu baree kon boo ci demee mën nga caa gën a yokk kon tubbi du problème mu forcé nit ci diine waaye nit ki dafa jalgati sart ñu teg ko mbugal mi ko war a teg kon jotul daraak sañ-sañu pas bi bu dee lu mel ni jihaat jihaat tam ñu bari dañ naan jullit yi dañuy jëfandikoo ngànnaay ngir forcé nit ñu dugg ci diine. loolu te ku ne xam nañ jihaad ci lislaam imposé diine tax koo jóg yeneen mbir mooy daje jihaad door am tegtal bi mooy ne ñaari jullit bu ñu xeexee ay nit ba gañe leen dañ leen di tànn dañ naan la ku neex nga ñëw ci lislaam boo nekkee jullit yaa ngi ñu ne yem ci lépp bu la neexee tam nga des ci sa diine boo desee sa diine nag dangay joxe galak maanaam da ngay joxe imb impôt boobu moo tax nga koy joxe ndax nekkat fi nga nekk lislaam jullit ñoo ko yilif ci état islamique nga nekk moo lay aar maanaam maanaam maanaam maraafeq wala boog service yi fi nekk yëpp nga koy jariñoo te état islamique moo ko moom jariñoo boobu ngay jëriñoo service yi nag ak aar boobu la état bi aar nag moo tax nga di ko jox impôt bi nga koy jox waaye bu la neexee nga des sa diine kon bu fekkoon ne dañuy force nit ki ci diine buñ ko xasee gañe dañ ko naan par force da ngay nekk ab jullit te boobaa dañ léegi rek moo ci ñëw nekk jullit am naa feq indi loolu boo demee ci l'islam civilisation musulmane jullit yi da ngay gis ne ñu ñeenti ahlu dimma ahlu dimma mooy ñi nga xam ne ni dañ doon dund ci biir état islamique waaye nekkuñu woon ay ñoo ñu amoon na ci biir islam kon jihaad forcé nit ki ci diine tax koo jóg ubbi yi nga xam naa nañ def itam dem nañ ubbi nañu Rome Rome ubbi nañ nangam Palestine ubbi nañ feneen ak feneen loolu itam soog des civilisation moo ko andi woon jamono booba maanaam byzantin dañu perse yi ne fële ku nekk yor sa civilisation civilisation doon xeex seen biir loolu moo gënoon a ubbi moo gënoon andi ubbee gi waaye du woon ne di saxal lislaam ndax lislaam dëgg la ci la bokkoon waaye fu ñu ubbi itam ku neex nga des ci sa diini kon loolu dañu li ñu ciy dégg mooy ne kon jihaad dañ koy def ngir défendre suñu bopp waaye du def ko ngir imposer kenn diine kon lislaam imposer kenn diine du ci jihaad du ci tibb ba du ci pas bi ñu bari nag noonu lislaam dañ naan lislaam dafa tasaaroo ci jaas jaas lañ ko tas ndax dañoo forcé nit ñi ne ci lislaam te wax naa léegi nag ne nit ki même boo ko forcé woon ba mu la gëm naa tam du wax mu am pas-pas ndax am naa feq ngay am te lislaam soxla wut naa feq ku gëmal boppam moom la soxla kon lislaam saxal na sañ-sañu fas-fas bàyyi la nag nga xool ba mu doy la moo tax dañ naan la duñ ne rek fii laa fekkoon samay bàyyi samay maam ñu ne ci déedéet dañ naan la xoola ba mu doy bokk na ci lii tax nga xam ne doy na nag mooy mu wóor la nag boo duggee doo génn te defe naa ne nag ku nekk ci ñun bala ngaa dugg ci mbir boo fekkee yaa ngi jëfandikoo sa xel danga xalaat xool càmbar ba mu doy la nga door caa dugg bu la xasee doy nag boo ca duggee nag lépp lu la ci fekk nag jéem a la assumer say responsabilité kon tam foofu dañuy gis ne lislaam xañul kenn sañ-sañu fas pas-pas bu ñëwee ci wàllu sañ-sañ bi nga xam moo gën a tasaar jamono jii mooy sañ-sañ wax sa xalaat am sa xalaat wax ko mooy nit ki ñu may ko li muy yëg ci biiram mu mën ko wax ci xalaatam te kenn du ko xatal kenn du ko bundu xataal kenn du ko teg benn pression loolu itam sañ-sañ la boo xam ne nii liberté def ci jëmm loolu nag askan wu amut dañ naan ñooñu askan wu dictature la ñu dund dictature mooy kenn nit rek mooy xalaat keneen amul sañ-sañ wax sa xalaat wala li ñuy wax despotisme despotisme nag dictature daanaka soriwuñ lool lool ndax nag kon lislaam am may na nit mu wax xalaatam foofu dañuy gis ne bu ndoo la ci lislaam dañuy gis ne sax moom da koo saxal bu baax a baax a baax nit ci lislaam ku nekk dañ laa war a bàyyi nga wax sa xalaat buñ jëlee principe bu diisoo ñëw na ci alxuraan ay aaye yoo xam day wax nit ñi ne leen seen mbir mii kat da ngeen koo war a diisoo seen diggante amul kenn ku naan man dong may xalaat ñu des duñu xalaat wa amruhum suuraa baynahum kon liñ seq ñun ñëpp dañ cee war a diisoo diisoo nag koo def mooy yaa ngi wax sa xalaat ku dañuy déglu sa bu ñu dégloo xalaat yi ba noppi nag màndaxee ko bu ñu ko màndaxee nag door a décision kon diisoo boobu yonent yàlla ko wax ne li ngay def lépp diis ci diisoo nit ñi wa shaawirhum fil amr kon islam ubbil na nit ñi buntu ñuy wax seen xalaat xëy na ñàkk a dégg lislaam koy mooy tax ñu dem ba mu jàgg ñu jàpp ne lislaam boo ci xasee dugg imaam dong war a xalaat wala diw dong war a xalaat déedéet ñëpp war a xalaat imaam sax amul sañ-sañu jël décision te dellu suut ci ñun seqal mbir mi ñu waxtaan ci ku nekk génne si bu ñu génne suñu xalaat nag ba jël décision des nag kilifa gi doon jël décision bu xasee jël décision nag assumé décision bi mu jël noonu ci xaddis yoon bi ne diine den laabirante rek la ñu ne kan la bi laabire mu ne yàlla ak yonentam bi ak njiitu jullit yi ak mbooleem jullit yi ku wax laa laabirante nag da nga wax wax sa xalaat moo tax sa kilifa sax dañoo bëgg la ngay xalaat nga di ko wax jullit bu ñëw ci yow dañoo bëgg la nga xalaat te nga jàpp ne mooy lu baax bu fekkee wax na caa yow nga wax ko tam dem sax ba ne bokk na ci jihaad yi gën a kawe du rek nga tuur sa deret ci lislaam waaye nga foog nga fekk njiit lu jeng nga taxaw ne ko dangaa jeng loolu ne bokk na ci xeeti jihaad yi gën a màgg te loolu wax sa xalaat la kon wax sa xalaat ci lislaam léeg-léeg sax day war day war léeg day war nga génne wax sa xalaat ndax bu nee la diine diine laabirante la te da ngaa war a laabiri yoon yàlla laabiri yonante bi laabiri imaam yi kon laabiri googu da daan nekk warteef ci yow kon wax sa xalaat mën da nekk dem nañ sax ba ne nag nit su fekkente ne dafa gis dëgg war caa wax man caa wax te waxu ca jàppal ne seytaane su luu la seytaane su luuma la as-saakitu ala laq seytaanul axras maanaam nit bu gisee dëgg war caa wax te waxu ca jàppal ne seytaane su luuma la daa mën tax waaye mooy seytaane ci boppam fekkee diine nag joo xam ne gisee na noonu sañ-sañ wax sa xalaat nag kenn mënta tuumaal lislaam ne ko da ngay dox diggante ñi ak wax seen xalaat te bokk na ci li ñuy tuumaal lislaam dañ naan ne bu ngeen fi defee état islamique kenn dootu wax kenn dootu dindi kenn dootu def loolu ci ñàkk a dégg diine lislaam ci la bokk. lislaam na kon li ma ko waxoon départ ba de dafa ñëw ngir organiser dundu doomu aadama te liberté bi ñu mooy ay caaxaan ci moo tax nim la mayee sañ-sañu nga wax sa xalaat nag daf lay teg ci yoon wi ngay jaar wax sa xalaat mooy ne xalaat bi ngay wax na tànn yoon wi gën a rafet te gën a baax te gën a jekk te gën a yell nga waxe ko noonu ngir mën koo jàllale ci keneen loolu dañ la sant kon dañ la koo nosal dañ la koo waxul bu ko def waaye dañ la moo tax dañ naan la booy booy booy weranteeg ñële nga xam ne ay duñ ay jullit fexeel ba weranteeg ñoom ci yoon wa gën a rafet ndax mooy tax nga mën a convaincre nit ki waxuñ la ngay wax wax ju ñaaw wala ngay wax baat yu teggi niw waaye waxal ak ñoom ci wax ju wax ju wax ju wax ju nooy ba Moussa ak Haroun la ba ñu leen yónni dañoo ne da ngeen wax ak moom ci wax ju nooy ndax mën naa am bu ngeen waxee wax ju nooy xelam dund koo dellu si kon wax sa xalaat dafa am yoon wu lañ lay waxal dañ naan na kon booy wax na fexe ba wax ji nekk wax ju rafet waqulu linnaasi husnan nit ñi bu ngeen wax ñoom wax leen ak ñoom wu rafet kon sañ-sañ wax sa xalaat ci lislaam dañ koo garantir nit ki waaye nag mu des noo koy waxee waxin wu ñu wax ne la na nga fexe ba sàmmoon sàmmonteeg wax ju teggi ni wax ju jaar ci yoon bu ko defee da àgg fa nga bëgg a àgg te doo jam kenn doo teg kenn loo ko wata teg beneen sañ-sañu nit boo xam ne ni ba tey lislaam saxal na ko muy am sañ-sañu toxu ci kaw suuf jóge fii dem fële wala dëkk fu la neex ci kaw suuf foofu dañuy gisee lislaam da cee raw sax moom yeneen système yi ci lu baree bari ndax lislaam li mu jàngal mooy ne yàlla moo moom suuf seeg asamaan si ak li ci kaw lépp kon nit moomu dara yàlla daf ñoo wuute ci kaw suuf si ngir mu dundal ko ci kaw dundalal ko suuf si kon suuf si yàlla moo ko moom nit moomu ko ba ciy wax diw fii nii dëkk ak fii kon ku nekk yaay xool moomee suñu borom la yaa cee xool lañ ci bëgg nga dëkke ko l'islam reconnaître frontière yi nga xam ne bu yàgg doo ñaari nga fendi naan Sénégal fii la yem Mauritanie fii la yem ku nekk nga ba tax ñu naan la amoo sañ-sañu dib Sénégal yi dem dëkk dëkk fële wala boog bala nga faa dëkk il faut nangam nangam nga jaar fii déedéet l'islam xamul loolu dangaa am sañ-sañu wëndeelu ci kaw suuf si foo jàpp ne fa la sa nga nekk fa nga mën dëkk nga dëkk fa am nga sañ-sañu dëkk fa bu dee ci lislaam kese kese la ñuy waxtaan moo tax yàlla ne suuf si maa leen ko defaral muy suuf ngeen man koo war di dox mu ne nag kon dox leen fa ngeen mën na dem dem leen fa ngir wuti fa seen wërsëg man koo jariñoo kon déplacé wu sañ-sañu déplacé ci kaw suuf lislaam ba mu ko saxalee yàgg na lool te ba léegi ñun dañuy tënk nit léegi système yu bees yi dañuy tënk nit am na réew yoo xam bala nga faa dugg li ngay daj ci wut visa boo demoon bu dugg fa la ngay daj pour am carte séjour mën faa dëkk mën nga faa dëkk nangam at yoo xam ne sax doo fa am nationalité doo bokk ci waa réew mi ab doxandeem nga fay doon kon ñooñu ñoo amul lu lislaam ñooñu kay ñoom ñoo a xoolaat seen bopp waaye ñoo amul lu ñuy wax si lislaam lislaam amul nangu jox laaju la visa laaju moo ko moom fu la ci neex xoolal kon lislaam moo ci raw ñu baree waaye nag lislaam tam ni ñu koy waxee waat rek la ñu waxaat fii dafa ñëw ngir ëllëg sa dund moo tax noonu ñuy déplacé wu ci kaw suuf di dëkk fi ñu neex tam nag bàyyi la nga defee ko rek dafa yóbbu la neex de dañ ne la ñi am seen dëkk defar ko ba mu baax ba mu mel na war a mel ba mu mel nañ bëgg amoo sañ-sañ ñëw fa di ko yàq ndax ñun ñoom ci misaal dëkk bi ñu ne dëkk bi defar nañ ko Tuubaa ñoo ko sëñ bi defar na ko ba mu mel na war a mel lu baax li fi nekk lépp def na ko fi li foot nekk lépp li fi bon dàq na ko ba njëriñ duñ la may nag ci kaw sañ-sañ fu la neex dëkk nga ñëw dëkk Touba di fi dëkkee ni la neex loolu tam duñ ko may kenn ndax boobaa da ngay yàq système bi ñu fi tëraloon loolu kon dëkkul foofu moo tax ñu ne nag suuf si gannaaw bu ñu ko yónnee rek defar ko ba noppi nag dinañ fa ñëw di ko yàq ñu sax ñu ne la ñu nga xam ne dañuy dox ci kaw suuf dem fu ñu defar ba mu baax ñu ñëw taxaw ci fas yéene yàq ñu ne ñooy seen pay lañ mooy lan mooy bu ñu jàppee sax dañoo ne lañ nañ leen rey wala nañ leen teg mbugal mu mettee métti kon am nga sañ-sañu tuxu dem fu la neex am nga sañ-sañu dëkk fu la neex waaye nag fexeel ba lañ defar bu ko yàq boo ñëwee ngir bëgg yàq nag am na lu lay dal teg sa kaw loolu ci wàllu organisation ci la jëm beneen sañ-sañ mu nii boo ne nii sañ-sañu moom moom tam alal nga am alal joo xam ne dañu yaa ko moom foofu dañuy gis ne système yi baree ba dañ ci wax idéologie yu baree bari dañuy wax ci sañ-sañu moom am na ñoo xam dañoo ëppal ci saxaw ko ba ëpp am ñoo xam dañoo ëppal ci xañ ko nit ki boo demee ci li ñuy tuddee libéralisme mooy capitalisme moom moomeelu nit dañ caa dem ba mu ëpp daa dem ba fa mu nekk sax li ñuy tuddee égoïsme nga xam ne nii bopp sa bopp ci la ñuy dund ku nekk daal loo mën a moom rek moom ko donte soxlaatoo ko sax da nga koy jël yaa ko ko dajal boo demee ci communiste yi donte communisme amatul léegi wala boog bareetul léegi ñoom dañoo ëppal ci xañ nit ki ak moomeelam dañu dem ba ne nit ki amatul dara lu muy moom état moomoom lépp doomu aadama loolu day wuuteeg ni yàlla moo ñu doomu aadama lislaam kon moo ñëw nag xool ni ñuy organiser moomeel googu mu saxal ne nit ki am na loo xam yaa ko moom sa alal la kenn kenn amul sañ ko ci te amul sa ñu wutal loo xam ne nii dañ naan yaa ko moom alal képp ku ko jalgati tooñ na la te yoon dana dal ci kawam moo tax ñu alal ji ku nekk am na loo xam yaa ko moom waaye nag bu kenn jël moomeelu jàmbur teg ko ci caaxaan. ni mu am na sañ-sañu nga moom sa kër am sañ-sañu moom alal di nga xam ne yaa ko liggéey mën jaa soppandiku la muy tegtale am nga sañ-sañu jariñoo ko ca waj waj ga neex ak nam la neex ndax loolu suñu borom daf ñu koo mooñaale ku nekk suñu borom daf laa mooñaale nga am bëgg loo xam ne nii da nga koy moom ñu ne lii diw moo ko moom te it loolu day tax nit ñi gën a sawar ci yokk ngir tëli maanaam li ñuy produire dañuy tax ñu gën koo liggéey bi gën a rafet ndax su fekkee dañoo dangay liggéey waaye li ngay liggéey moo ci dara doo am lenn lu motivation doo am lenn lay pousse mun nga liggéey waaye nag su fekkee loolu liggéey dañoo la nga liggéey yaa tax ñu gën a sawar ci liggéey xam na ñu yàlla bind noonu doomu moo tax mu ne ko li nga liggéey yaa ko waaye nag loolu itam daf koy nos moo tax économie islamique yëpp mu ngi sukkandiku ci saxal milkiya googu moomeel googu moo tax dañ ko sàmmal boroomam di ko ñoŋal kenn sañu koo sàcc ku ko sàcc am na mbugal mu ñu lay teg ku ko siif wala nga foqar ci ko am na mbugal mu ñu lay teg ngir mën a garantir nit ki moomelam googu lépp loo xam dañu daal dañu menacer moomeel googu lislaam ko dana ko ko aaral ko tegal aw yoon woo xam ne nii dem dana mën a soppaxlu bu ko neexee mu jaay ko bu ko neexee mu nuyu ko bu ko neexee mu tay ko bu ko neexee mu maye ko bu ko neexee mu déggaane ko mu def jigéen ñi ko defal nangam ak nangam kon loolu lépp dafay teg lislaam saxal na moomeelu nit ki xeeti jëflante yi ñu na yëpp lislaam may na nga jëflante ci sa alal yaa ko moom ci sa sa coobar sa coobare bopp kenn du am sañ-sañu dugal ci kàddu waaye nag ni ñu ko waxee woon rek moomeel googu tamit lislaam bàyyi ko noonu rek ñu jëlal booleel ko noonu waaye daf ko jéema daf ko tegal organisé dañ ko wutal ay barrières yoo xam ne nii ba tax boo ci sukkandiku bay jalgate ak ñi ci des ci misaal tey ne la alal ji kat yaa waaye nag amoo sañ-sañu lër ko rënk ko déedéet kanzul amwaal kenn amoo sañ-sañu rënk alal doo ko jariñoo nit ñi duñ ko jariñoo doo ko doo ko investir loolu ci lislaam kenn nangu ndax boobaa yaa boobaa yaa ngi lor yaa ngi lor sa bopp sax waaye yaa ngi lor mbooloo mi ndax da ngaa waroon a investir alal ji mbooloo mi dañ cee yokk ñëpp mën cee jariñu kon rënk alal dañ koy aaya ci lislaam am na aaya bu koy jàngale alxuraan ñi nga xam dañuy rënk alal di ko denc ba yowmal qiyaamee nee na dañ koy jël def koy say di leen ko ñaas loolu wax nañ ko waxati ko kon rënk alal li ngay moom moom alal ji amoo sañ sañu dénk ko déedéet da nga ko war a investir nit ñi di ko jariñoo bokk na itam <coughs> mooy ne yaa moom alal ji waaye sañoo cee jëfandikoo ci riba riba mooy may am naa xaalis bu bari soxla nga ci alal ji ma yor mën la boo ko soxlaa damay sart sàngam ak sàngam ci misaal tey mën la yor naa xaalis nga ñëw ne na dama bëgg nga lebal ma xaalis mën la danaa lebal di waaye dama ci teg intérêt bu mag dama ci teg intérêt ci tënk boobaa liggéey moom moom alal ji lislaam dana lu bokk ndax booba dee yaa ngi lor ñi ci des yaa ngi lor ki ci des maanaam kooj ko tam amoo sañ-sañu kooj ko marchandise mu naa moom dama koy jaay waaye nag amoo sañ-sañu kooj ko marchandise mu baaxul ci misaal wala ger wala yu mel wala monopole yooyu yëpp dañ koy aaye ci lislaam ndax day lor ñeneen yi kon milkee googu boobee googu saxalal nañ la ko waaye nag dañ koo nos ba nga mën koo jariñoo waaye nag doo ci lor keneen te boo gisee asaka ñu yoonoo ko ci lislaam bu demee ba àgg fenn fi moom itam loolu rek lay tekki pour alal ji mën a tas nit ñi mën koo jariñoo am na santeen boo xam ne nii xëy na buñ ko tudd buñ ko tuddee mën a daaneel mooy li nit di seq ak borom këram maanaam diggante soxna ak borom këram xam nga ne foofu dafa am système yoo xam ne nii fase ci ñoom ak gal nañ ko dayo boo xam ne sax dañ koy araamal nga xam boo xasee takk dañaan doo doo fase sëy bi xas sax kenn dootu ko tas wala boog balaa ñu ko tas daañu la dogal ci ay formalité yu baree bari yoo xam ne dootu sax du sotti loolu maanaam dugal sa loxo sa lislaam daf ne ni nga amee sañ-sañu takk noonu nga amee sañ-sañu tekki loolu borom kër gi mën na ko ci jaare ko ci fase soxna si ne mën na ko jaare ko ci summi kont lu ci nekk ndax lu ñu bañ laa tënk nga nekk ci sëy boo xam ne nii bëggatoo ko te bu ko defee ba noppi ñu gàllankoor la ne dañ ciy des loolu forcé la ne dañ ci des loolu di dàgg ci mooy da dugg ci force te lislaam nangu loolu mën na kon nag bañ koy takk ni ngeen amoon sañ-sañu na koo def bu ko neexee jaare bu jógee bu dee ba woo koy ko neexee mën naa def li ñuy wax sëriñ kon te loolu itam sañ-sañ la boo xam na ko te wóote ceeg yeneen gisin ndax na gisin yoo xam ne ñoo gis ne ñoom sëy bu ñu tekki ko ndax maanaam mbooloo maanaam réew la boo xam ne nii mu xam dañ ko sacré daal maanaam dañ ko sellal kenn doon ko firi yooyu yëpp nag ay mbir la yoo xam ne tegtal ne kon lislaam mësta xañ kenn sañ-sañam xëy na nag kon mu des nos gi moo ci des kon loolu ci tënk moom ubbee jotaay bi muy daal mbir moo xam ne nii waxtaanu ko am na solo muy sañ-sañ ak na ko lislaam gise ndax dañoo gis ne noonu lislaam yu baree bari dañuy tuumaan lislaam ne ko da xeex àq bi yelleefu doomu aadama da ngay xañ nit sañ-sañam da ngay xañ nit nangam ak nangam ba sax yenn ci jullit yi nga xam ne nii dañoo way fi ñu nekk nga xam dañoo ëppal ci yëf yi dañ nga xam dañoo jàpp ne lislaam kenn waru koo jàngate ci xel lislaam ak xel ñoom dañ leen di gëm ne lislaam ak xel dëppawul xel xel la lislaam lislaam la ñooñu sax benn benn jullit sax dañu gëm ne lislaam boo ci xasee dugg daf lay tënk ci nangam ak nangam maanaam wala boog daf laa forcé ci nangam ak nangam waaye defe naa ne buñ jàngatee lislaam ci xel rek teg ko seen xel kese kese yax wala boog texte yi nga xamoo ci nekk ñu jéem koo jàngat ci sunum xel danañ gis ne lislaam mësta xañ kenn liberté wala sax dafa jàpp ne loola moom suñu borom daf ñu ko mooñaane moo tax ñu gëm ci lislaam ne ku nekk boo juddu boo juddu ak gor ngay doon gor bu mat sëkk ngay doon kon képp koo gis rek ñu def ko jaam gannaaw bi rek moroomam nitam ne moom moo jëfandikoo doolee boppam ñëw not ko te moom it xëy na mu nangu ko not ñu not ko loolu moo ko defub jaam waaye ba ñu judd ma amul kenn koo xam ne ngaa judd nekkub jaam kenn moo tax Omar ibn Khattab sax daanaka wax ne leen kañ leen bëgg nit ñi def nit ñi ay jaam te ñun ñëpp ñu judd di leen seen i waajur di indi ci ay gor lañu woon na kon nit dafa juddu liberté ak sañ-sañ nit daf koy judduwaale kon gis nañ ne lislaam gaarante nit liberté tàmbale ko ci pas-pas bi ba ci noon gi ba ci maanaam toxu gee dëkk ga yëpp mu garanté la waaye nag am na wuute gu nekk ci diggante liberté bi nga xam ne nii suñu borom daf ñu ko mooñaal en tant que ay nit ak li ñuy tuddee effort yi ngay def ba mën a jëmmal liberté boobu ci kaw suuf bu ñu nee taxarur mooy wéy libéré wu li ngay fexe ba libéré sa bopp ak liberté boppam nag danoo xaw a wuute liberté bi mooy li ñuy yàgg mooy mooñee indaale ñu ko libéré gi nag mooy ñun effort bi ñuy def ngir mu loolu suñu borom may ñu indaale ko nu mën koo jëfandikoo ci libéré googu ñu def suñu bopp nag ñu baree bare ci ni ñuy jaar nag léegi bëgg na bëgg raxas seen bopp ci ay responsabilité ba def jàpp ne ko ñoom dañu war a dund neex te dañ ci ba am benn responsabilité ki gëm nañ ne moom jàpp ne daa war a dund la ko neex te du ci am benn responsabilité nag kooku la ñu koo xam ne nii dafay itijaaxu taxarur yi kooku moom mu taxarur la wala saxuran dafa libéré wu waaye nekkul dafa libéré waaye nekkul insaan ku libre loolu ko xel nanguwu ko même ñun ñu dañoo gëm ne ku am ko koy jëfandikoo sañ-sañam war naa bàyyi xel ne lu ca juddoo da koy assumer muy ay responsabilité moo tax kon islam dafay dugal loxoom ci ne wan nañu ni kon liberté day ànd ak responsabilité moo tax liberté ci islam mooy nit ki xam li mu war a def ak li mu war a def xam li mu war a tànn ak li mu war a tànn bu ko mu war a tànn mu tànnal ko boppam te kenn du ko ca forcé boobaa mooy liberté waaye nag liberté bu ànd ak responsabilité moom mooy anarchie loolu kenn nangu ko te loolu wuute naag mission bi nga xam moo tax suñu borom indi Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf te mooy lislaam te mooy nos dundin nit ñi ci kaw suuf kon liberté ci tënk mooy nit ki tànn ak njub te tànnal ko boppam tànn ak mbaax te tànnal ko boppam foofaat bu dee liberté mooy kenn du wax tànnal lii yow yaay xool ba neex la nga tànn moo tax moo tax suñu borom neen dama wan naa la ñaari yoon yoonu baax ak yoonu bon ni ngi nii léegi nag xoolal boo ciy jaar boo ci jaar nag yaa jaarale sa bopp kon mbir mi bu ñu ko bëggoon tënk dañuy wax ne mu mel ne nga tiim ñaari marchandise marchandise moo xam ne nii original la ak marchandise moo xam ne nii false la ñu bàyyi la nag la tànnal yaakaar naa bu fekkee am nga yaa ngi ànd nga xel dara booy tànn marchandise mu original mi ngay tànn waaye doo tànn false bi ngi jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi jërëjëf sëriñ bi ci waxtaan wu am solo wow ñuy fàttali ne eh, li doon waxtaane mooy alxurriya fi l islaam mafhumuha wa xuduuduha muy liberté ci lislaam ay dégginam ak ay limitam bu fekkee am nay limite euh, ñuy sant sëriñ bu bu baax ci leeral googu mu leeral waxtaan wi dafa mel ne li mu njëkkee ci waxtaan wi rek mooy xamle ginnaaw ba mu defee ab laytaay xamle lan mooy xorriya euh, yan déggin lañ ci am ak bu fekkee am na fu mu tàmbulee fan la yam donte sax buñ duggee ci biir waxtaan wi day mel ne buñ déggee eh, li nga xam ne moom la wax xëy na eh, xurriya moom nit ki am na ko mutlaqan waaye kenn tënku ko fenn nit ki liberté moom ci boppam mooy xam fu muy tàmbalee ak fu yam waaw donte eh, wax na ci biir waxtaan wi ne lislaam moom lim man mooy organise nit ki ba nga xam ne dana xam ne fii la tàmbalee fii la yam waaye nag du ko wax liberté ne ko fii la tàmbalee fii la tàmbalee fii la yem kon baat bu naqaree definiir mooy liberté alxurriya naqari gi naqaree definiir nag li ko waral dëgg-dëgg mooy dafa bokk ci baat yi nga xam ne nit nit ñi dañ koy jëfandikoo mu bokk ci baat yi nga xam ne mënees na leen a wàññi ci ay baaraam ci yu nit ñi di jëfandikoo ci jamono ji kon euh, jafe na lool ñu définir ko xëy na am na ñu bari ci xalaatkat yi ñoo xam ne déggee nañ ko nu euh, baree bari wuute lool ak euh, ñenn ñi nga xamante ne bi euh, dañuy wax ne ci jamono ji liberté moom lislaam dafa mel ne dafa jàkkaarloo ak lislaam dafa mel ne dañ ne lislaam moom ku ci nekk amoo liberté wala lislaam ci boppam du liberté loolu la ñi jàkkaarloog ñun di wax waaye loolu itam sëñ bi wane na ci biir waxtaan wi ne loolu bokkut ak li am ndax lislaam ci boppam mooy jëmmi liberté waaw boo jëlee mboolem pàcc lislaam yi dangay xam ne lislaam ci boppam mooy mooy mooy liberté dëgg-dëgg xam ne na ko ci noonu ma ko waxee ci xalaatkat yi ni liñ ci jublu muy falasifa yi ak mutasawifuun yi eh, ba ci ñi nga xamante ne bi ay niti lislaam lan tam tam lim leen muy ñu baree bari xamle na xamle nañ lan mooy liberté ba tey li ñuy wax xurriyat taabir sëñ bi dugg na ci bu baax a baax muy liberté gi nga xam ne mooy liberté d'expression muy nit ñi ni ñuy waxe ci kaw naan nit ki lu ko neex da ko war a wax loolu lislaam ci boppam moo ci jiitu lislaam ci boppam moo ci jiitu ndax euh, lislaam may na nit ki mu xalaat bu xalaatee ba noppi jëfandikoo xalaatam ndaxte yonent bi aleyhi salaatu wasalaam euh, suñ borom da ko wax ne ko li ngay def dee ci diisoo ak nit ñi wa shaawiruhum fil amr wa amruhum shura baynahum kon loolu day wone ne lislaam bàyyi na xel euh, xurriyatu taabir kon loolu itam lu am solo la ak it diine itam laa biire la kenn ku nekk loo xalaat moo xam ku la jiite la wala koo xamante ne bi yéen a tolloo daraja da nga ko war a wax say xalaat kon lislaam lu ku bàyyi xel xurriyat ta'bir la ba tey it euh, li ñuy wax euh, xurriyat muy xalaat lislaam itam lu ko bàyyi xel la nit ki dafa war a am xurriya ci tafkir ci xalaat euh, te boobu mooy bi jiitu sëriñ bi moom la jiitaloon ndax euh, nit ki ndundal la boo xam ne day xalaat ginnaaw ndundal la buy am xel di xalaat nag moo tax lislaam soññee bu baax a baax ci mu mën a xalaat di joxe ay xalaatam moo tax euh, ñu bañ nit ki gën a euh, ëppal ay xalaatam ci xalaat suñ borom subhaanahu wa taala waaye mën naa ëppal ay xalaatam ci xalaat mbindeef yi nga xam ne suñ borom subhaanahu wa taala da leen bind am na ci alxuraan ay aay yu baree bari yuy wane ne nit ki dafa war a xalaat kon lislaam moom tënkut xalaatu doomu aadama amut fu mu ko yemale ba te it bu ñu demee ci xurriyatul aqida muy nit ki am pas-pas euh, liberté boo xamante ne liberté pas-pasam la loolu itam lislaam tënku tënku ci nit ki boo demee ci alxuraan suñ borom subhaanahu wa taala mi ngi wax ne wa xulil xaqu min rabbikum fa man yu yu yumin wa man shaa fal yakfur képp koo xam ne gëm nga képp koo xamante ne bi neex na la nanga nga gëm képp koo xamante ne bi neexu la da itam nga weddi kon foofu suñ borom tënku fi tënku fi kenn waaye nag ku dugg ba noppi nag am na ay gàll gàll yoo xamante ne bi gàll na la ko te sëñ bi dikk na ci lu baree bari muy lu mel ne ku dugg ba noppi bëgg a génnaat am na yum la teg wax na ci atte yu bare bari yoo xamante ne bi eh, xalaatkat yi wax nañ ci waaye itam ñi nga xamante ne ñooy fuqaha yi wax nañ ci lu lu bare bari ba tey it eh, lislaam tënkut fenn ci nit ki fii lay dëkk ak bu ko neexee du jóge fii dem fee ak yooyu loolu itam xëy na lu waaye àdduna yi ñoo ko tënk waaye eh, alquranul karim ak diine suñ borom ju sell ji moom dafa mel ne tënku ci kenn ba tey it eh, mu mujj lu am solo muy xorriya milkiya ak xorriya zawjiya muy liberté bi nga xam ne nit ki moo moom nàngam kenn ku nekk xëy na eh, lislaam bàyyi na xel ci ne yow yaa moom lii sa alal wutal la ay eh, xuduud yoo xamante ne bii moom nga koy moome waaye itam wutal la loo xam ne dana la moytandikuloo ci ñi nga xam ne ñoo la bëgg daan jël walla ñu di ko sàcc wala ñu bëgg laa faagaagal jël alal jooju kon loolu itam lu am solo la waaye itam eh, liberté boo xamante ne bi ci wàllu nit ki ak soxnaam la sëñ bi dikk na ci bu baax a baax eh, kon loolu ngir eh, ñu tënk ci rek day wane ne jëmmi liberté moom baat la boo xamante ne bi bu ñuy jëfandikoo la waaye ni koy jëfandikoo ci jamono ji xëy na bokkut ak ni ko lislaam déggee dëgg dëgg dëgg lislaam moom ni ko déggee dëgg dëgg mooy suñ borom subhanahu wa taala bind na doomu aadama ji waaye itam may na ko liberté waaye liberté googu da koo tënk dafa am fum ko tënk da ko organiser dafa da ko organiser bàyyi na ko itlaax waaye da ko organiser ba nga xamante ne bi xëy na yii dang nga ca sañ def nangam yii itam doo ca sañ def nangam kon loolu itam mooy jëmmi tënk tënku euh, li nga xam ne mooy waxtaan wi kon ñuy sant bu baax euh, Serigne Fallou ci leeralu waxtaan wi xëy na euh, waxtu wi moo bëriwul waaye liñ ci bindoon xëy na bari na lool ba nga xam ne buñ ci duggoon euh, dina gën a dina gën a kii waaye dañuy yemale foofu suñuy kàddu rek di wax ne subaak jàmm incha allah ñu ngi waxtaane amraadul xuluub wa turuq ilaajiha ki koy def mooy Serigne Mountakha Diatara incha allah suba ci fukkeelu fanu koor gi ñuy fàtt leen rek euh, laaj yi ñu ngi koy jàllale ci laaj fattuwaay yi ñu ngi koy jàllale ci numéro yi 77 765 58 73 ak 77 448 33 77 képp koo xam ne am na laaj boo xam ne war nga ko mën a laaj ci diine boo ko envoyé ci numéro yooyu euh, ci whatsapp wala telegram bu soob yàlla incha allah dinañ la ko jottalil ñi nga xamante ne bii ñoo ko war a laaj incha allah kon mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Banda